رضي الله عن صاحب القتم والكتم أبي العباس مولانا سيد أحمد التجاني وعن وارثه وصاحب فائدته مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم ناس بكي ديل dellu siwaat nañ ci barab bi nga xam ne barab bi xam-xam la barab bi nga xam ne barab bi jubu jubuwaay la ngir teral ndongo daara yi nga xam ne dañoo bàyyeekoo ci barab yu fasante ko ñëw ngir sàkku li nga xam ne moo di xam-xam ci jàngu bi nga xam ne cheikh Umar ibnu cheikh Ousmane Fati Niass moo ko tabax ngir dimbale jaamu yàlla yi ci dugal ci seen dënn yi li nga xam ne moo di xam-xam. incha allah bala ñëw agsi ci ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee bés bi xam nañ ne jotaay Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahim Niass waxtu nekk alquranul karim lañ koy ubbee ndax moom Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahim Niass moo ñaanoon yàlla def alquranul karim muy karaamaam ba loolu moo tax yàlla may na ko ko ba bépp jotaay boo xam ne rek day askanoo ci Mawlana Cheikhul Islam Alhaaj Ibrahim Niass alquranul karim lañ koy ubbee ñu oo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 ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن جاءكم منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك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 بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم الفاتحة جرجف جرجف ما شاء الله جرجف كن kon xam naa rek ñu continuer programme bi euh, ci suba ñu ngi doon déglu ndongo daara yi ci li nga xam ne moo di lañ doon jàng ci diirab année bi yëpp euh, ci ngoon gi nag comme niñ ko xamee euh, waxtaan wu am solo dana fi am bu ci kanamee ki koy def di Cheikh Mouaz bi tey waaye balaa boobu rek dañuy fàttali ne bés bi dafa am ñoo xam ne ñoom la ko Cheikh Oumar tuddee euh, ngir kóllëre goo xam ne dox na digganteem ak ñoom bokk na ci ki nga xam ne moo di Alxaaji Diène mbay ak ki nga xam ne moo di euh, monsieur Ahmed Youssouf Ben Djeloul bokk na ci ñu ngi ko tuddee it euh, Cheikh Ilias Niass ak Alaaji Mor Lo bokk na ci ñi nga xam ne tuddee nañ leen bés bi ki nga xam ne moo di Pape Ndaw Eh, ñu ciy fàttali ay kilifa yoo xam ne ñoom it mënta ñàkk ñu fàttaliku leen ci bés bi bokk na ci Seyda Maam Astou Diankha di doomi Alaaji Ma du Niang bokk na ci nga xam ne moo di El mbay Mbaye Thiam ñu gën koo xam ci mbay député bokk na ci ci ñi nga xam ne tuddee nañ leen bés bi xaadimul quran Cheikh Serigne Daara Souleymane Seck nga xam ne ku nekk xam na ko ci li nga xam ne liggéeyal na ko alquranul karim bokk na ci ñi nga xam ne tuddee nañ leen bis bi di nga xam ne moo di euh, Seyd Ahmed Ndiaye ñu gën koo xam ci Kambela ak euh, Serigne faatu Diouf soxna faatu Diouf moom it bokk na ci ñi nga xam ne tuddee nañ leen bés bi ak alaaji Idi Thiam kon mbokk yi comme niñ ko xamee euh, ki nga xam ne moo war a def muhaadara bi mooy inspecteur Cheikh Mouaz bi tey Mouaz bi tey nag borom xam-xam la fii la jàngee li mu war a jàng yëpp ci diggante majalis ak mahad al yi di mahad alxaaji Abdoulaye Niass jàng fa li mu war a jàng yëpp jógee koo fa dem fi nga xam ne moo di Égypte nekk koo xam ne ku góorgóorlu ci wall xam xam-xam jàngale na ci mahad bi jàng na fa waaye tamit dem Égypte jàng fa mujj ñëw dellu siwaat Sénégal jàngaat fii Sénégal ba am licence am am li nga xam ne moo di maîtrise am léegi nag mi ngi nekk inspecteur te inspecteur do ku nekk rek lañ koy def ndax koo xam ne yaa war a saytu njàng mi ni mu war a doxee ndax mi ngi dox ak doxut kooku da ngaa war a nekk borom xam-xam kon kooku mooy ki nga xam ne moo ñu defal muhaadara bi di Cheikh Mouhass bi tey nekk ki nga xam ne moo jiite école imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé fii ci fi nga xam ne moo di coofak mu war ñoo waxtaanal nag jëmm joo xam ne xam-xam la bu doon dox ci kaw suuf جم جو خامنه دندم بيب داف كو ليغيال خام خام دي شيخ محمد النذير شيخ ابراهيم نياس ميغا خامنه بي مولانا شيخ الاسلام الحاج ابراهيم نياس سخلا كو يوري ايكول بي موم مو جوك باي مبولم ايتيم باي مبولم سخلام نيو بور تاخاو تي ليغا خامنه مودي ايكول بي باي نكو مون باي سا ليسانس باي سا ديبلوم باي سا ليب بيم نيوي تي ايكول بي لب لو نيك ريك تي تشونا داج نكو تي ايكول بي موم سخ ku nekk xam na liggéey bi nga xam ne liggéey na ko luxal arabiya dañuy wax ne eh, luxal arabiya dëgg-dëgg lim ci liggéey néew na nga gis ku ko liggéey fii ci fi nga xam ne moo di réew mi ñi nga xam ne ñooy troupe yi nga xam ne ñooy woy fii ci Sénégal ñu demee ni ki ñoom Cheikh baay bi teegi ñu mel noonu ñoom ñëpp mën nañoo wax ne ci ku jàngee ci moom lañ jàngee ndax ñoom ñëpp ci école bi lañ génnee kon dafa nekkoon koo xam ne luxal arabiya rek moom moo ko jaraloon lu nekk ci dundam ba yoonam bu mujj sax ci Qahira loolu moo ko indoon Qahira ci 1998 pour ñëw seet yan anam ci la gën a mën a continuer dimbalante diggante Azhar ak mahad islami di mahad alhaaji Abdoulaye Niass ba yàlla euh, jëlee ko fa kon kooku dundam dafa nekk dund boo xam ne war nañ cee taxaw jàngat ko ba képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci wàll jàngale ci loxo arabiya dëgg-dëgg war ngaa déglu waxtaan bi ndax xam na am na lu bari loo ci mën a jëriñoo kon duñu déglu sëriñ moaz bi tey bu paree dañ ànd ci ay discours yoo xam ne ndongo daara dinañu ko defal ci li nga xam ne moo di arabe ak français su paree mbooleem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi danañ leen tudd incha allah kon ñu ànd ak cheikh moaz bi tey ci waxtaan wi nga xam ne mi ngi aju ci al mudir cheikh Mouhamadou Nazir Nazirul Umma cheikh Mouhamadou Nazir Alhaaj Ibrahim nias shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله وإمام المتقين وعلى آله وصحبه ورضي الله عن صاحب الكتمية والختمية شيخنا أحمد بن محمد التجاني وعن الشيخ وعن الشيخ بجميع مراتبه شيخ الإسلام وسعادة الأنام الشيخ الحاج إبراهيم ياسر وعن خليفة صاحب الفيضة الشيخ محمد الماحي إبراهيم ياس وإمام المسجد الجامع الشيخ أحمد تيجاني علي سيسي وعن جميع أفراد أفراد أفرة الشيخ ذكورا وإناثا كبارا وصغارا وأخص بالذكر سادتي الشيخ إبراهيم ابن الحاج عثمان فاتنيس والشيخ محمد الأمين ابن الشيخ الحسين الحاج بابكر نياس والشيخ إبراهيم ابن الشيخ متيجاني الشيخ إبراهيم وأسرة الشيخ محمد نزير وأخص بالذكر الشيخ محمد نزير وعثمان محمد نزير وسيد محمد لو والسادة الكرام وأخاف والشيخ عمر جان الإمام تيبا لم هو أعرفه لكن لم أره لذلك لكن أعرفه جيدا وأعتز بتلك المعرفة مبقي نيغ دي نوي بو باخ دي لين زيار limay ñëk wax moy présentation bi dama cee dégg bàyyi zeyn muy wax cheikh moaz te ñun duñu cheikh ñun ay taalibe lañ nekk fii di jàng te ba léegi ci loolu lañu nekk ñu koy gërëm nag ci rafet njort loolu waaye daal ñun ay taalibe lañ ñu wax ne gannaaw buñ santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa gërëm Cheikh Ahmed Tidiane yi ak xalifa mu Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu du ñu ñàkk tudd ci jataay bi xalifatu saaxibil fayda ñaanal ko najaax ca tukki mële mu dem ca Gàmbi ak di bégtam ci najaax ak réussite bi mu am ci mission bi mu demoon fële ca Soudan rawatina ci Darfour bu ñu ko waxee dinañ nuyu itam al imam Cheikh Ahmed yi di nuyu mbokk yi fi nekk ñépp njabootu Cheikh Ousmane Cheikh Ibrahima ngi nii Cheikh Mouhamadul Amin mu Cheikh Ousseynou ngi fi xalifa ca Taïba ña ngeen Cheikh Ahmed Boucar mu ngi fi ñu ngi nuyu mbokk yëpp di nuyu njaboot Cheikh Nazir di wax nag ne euh, ñun dañuy kontaan lool ci bi nga xamee ne Cheikh Omar dafay taxawee njàng ak njàngale taxawal école bi tuddee ko baayam te mu rafet lool ci tur wi parce que ñu ko tuddee imaam la woon ci jumaa ji imaam mooy ku jiite nit ñi di leen jàngal seen diine di leen teg ci yoon wi rawatina mu yore woon daara di jàngale xam-xam di jàngale alquran di jiite naafila ci kër Baay Ñas kooku noonu bu ñu ko tuddee école tuddee nañ ko war a tuddee loolu rafetlu nañ ko kooku nag su amee tey école di waaja a tëj mu def ay journée yoo xam ne ay fan yi caada la mu invité ñu ci ne nañ waxtaan ci kenn koo xam ne mooy Cheikh Mouhamad Nazir dañ ciy gën a kontaan. ñuy kontaan ci li ñu boole ci bés bi di kontaan ci daje bi euh, di wax rek ne lii peut-être dañ ñoo may bëgg a may teraanga dañ ñoo bëgg a may barkeel ci bés bi moo tax rek ñu boole ñu ci waaye peut-être mën nañ wax ne sax ñun tolloowuñoo ñuy waxtaan ci lu demee noonu ma bëgg a wax rek ne ki ñu bëgg a waxtaanee Cheikh Mouhamad Nazir la ولا محمد نذير لا شيخ محمد نذير بابو ولا نذير موم جانغلي كات لاو يار كات لاون بو خمون لم دون ديف داماي واخ رك لول دال بور مان تيرانغا لا بور مان ميغا خامني سي ايكول بوبو غا خامني موم لا يورون كي لا генني تيرانغا لا تام اك كيب كو خامني سي ايكول بوبو غا генني بون école boobu ñu ngi ko tuddee mahad El Hadji Abdoulahi Niass tur woowu nga xam ne Baye radiyallahu anhu ba mu ko ko tuddee daf ne daf ko ko tuddee parce que daf koo eyoo ne moom sax ci école boobu la génne génnee du taassub du ne parce que nit mooy sama baay moo tax ma tuddee ko mais dama ko ko tuddee parce que école am la parce que moom moo ko samp man mii ci taalibe yàlla donc école boobu nag moom la Cheikh Nazir yore woon mais man dama bëgg rek bala maa wax ci Cheikh Nazir dara damay def benn relation benn alaaqa boo xam ne dafa am ci diggante alquran ak lugal arabiya ak lislaam li tax may wax loolu dama ko bëgg lay taayalee waxtaan wi ne école bi buñ koy samp pour ñu xam alquran la pour ñu xam lugal arabiya la pour ñu xam lislaam la ma ne bon alquran nag ak lislaam ak lugal arabiya ban relation lañ am nan lañ duggante peut-être jar na wax mais ñu bari xam nañ ko alquran ci boppam bi mu ñëwee xam nañ ne lislaam bi muy dugg ci Sénégal ci onzième siècle la c'est-à-dire fii mu nekk nii lu ëpp junney at yu tegal al al lislaam a ngi fii ci biir Sénégal di fiy dox bu njëkk avant tubaab yi fii ñëw ci arab ak lépp ci lañ doon bind loolu li ko fi defoon daara yi la woon école yi la bon ñu xam ne alquran bi mu ñëwee wàcc ci langue arabe dafa lënkale arabe ak l'islam mu doon ñetti éléments yoo xam ne kenn mënu leen tàqale Baay radiyallahu anhu am na fu muy wax ne arab ci boppam الإسلام يبقى بالعربي ويقوى بالمسلم من غير العرب فيك اللغة العربية مونغي في عربا نغي في القرآن في الإسلام نغي في waaye nag ñi nga xam ne ñii ay musulman la ay non arab lañu ñooñ ñoo dëgëral l'islam ku ko bëgg a weddi rek demal nga seeti muslim nga seet buxaari nga seet yeneen téere yépp ñoo ñëpp ña nga jógee xuraasaan jógee feneen ñëw dëgëral l'islam te doonuñ ay arab bon l'islam loolu doon bàyyi doon wax c'est vrai que l'islam yabqa bil arab parce que langue arabe bi feeg mu ngi fi l'islam a ngi fi mais ñi ko gën a dëgëral ñi doon ay jullit lañ te nekkuñu arab loolu la Cheikh Ibrahima waxoon école yi nii ci li ko gën a firndeel la bokk bon mën nañ wax ne alquran bi mu ñëwee dafa lënkale ñett yooyu noonu muy alquran muy lugal arabiya muy l'islam lënkale leen parce que jullit ñi mënoo julli te jàngoo alquran te alquran boo ko jàng yaa ngi jàng arab mënoo jaamu yàlla benn te doo tudd alquran boo koy tudd yaa ngi wax arab xanaa bon loolu moo tax bu ñu demee imaam Shafii wax na ci ñeneen wax nañ ci ñu ci bëri imaam Shafii ci boppam dafa wax ne pour ma bañ a dugg ci te du ma lire texte bi damay wax rek li nga xam ne moom la wax daf ne jullit bu nekk. war ngaa jàng ci langue arabe loo xam ne da nga cee mën a seede ashhadu an laa ilaha illallah da ci mën a jaamu yàlla rafetal ci sa diine loolu la wax dama ko tënk buñ demee am na beneen jàngkat boo xam ne libyen la Abdoulaye Rafida wax ju demee noonu la wax ñoom ñépp dañoo wane ne am na feneen foo xam ne dafa amoon benn majal la di lisaanil arab boo xam daf doon tarjama ak taqrib ña Niass bindoon na ca benn texte tuddee ko ab addaat alxaalida ñu e-, génnee ko génnee ko innaha lugatul quran texte booba Baye daf ciy wane relation bi nga xam ne moom la arab am ak lugal arabia ak li nga xam ne lii moo tax sax lugal arabia changement yi am actuellement ni ci yeneen langue yi amut ci dem na ba wan ne soo demee ci français ca moyen âge dafa amoon déclinaison mooy arab soo demee ci langue Allemagne amoon na ko Islande amoon nañ ko langue yu bëri amoon nañ ko mais boo ñëwee ci arab la des ba léegi changé wul bàyyi na leen li tax arab changé wul ba léegi mooy parce que alquran dafa wàcc ci arab te alquran warta soppeeku yàlla moo wax ne inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu xaafidun bi xifdi alqurani yaxfadu llahu lugata al arabia loolu moo tax bàyyi dafa ko bindoon wax leen ko loolu noonu ba tey moo tax nag ma bëgg a wax ne parti bii nii duma ci ñàkk a wax parce que daf may wan ne lan moo tax bon bàyyi tabax école arabe lan moo tax ñu jël Cheikh Mouhamad Nazir jox ko ko lan moo tax avant école yi daara yi nekkoon fi daara alquran yi daara Baye Raja Assa ngi fi woon daara rabbaane ngi fi woon yeneen daaraa ngi fi woon majalis yi nekkoon fi majalis yooyu nag est-ce que Baye mënoon na ko tatwiir changé ko réformer ko moderniser ko te duñu jaar feneen parce que bu len faté né ay majalis moo fi nekkoon soo xëyee dañ lay dalal ben téré nga dal ci téré bi ba bam jeex nga commencé benen nga commencé benen lool nak bi nga xamé né école ñëw na école française am ñu am lu ñuy wax curriculum moy manhaj suñ ko waxé muqarrar bi ci la bok nan la ñuy naté xalé yi ci la bok nan la ñuy formé jàngalekat yi ci la bokk yooyu yëpp buñ ko boolee muy curriculum muy manhaj bi nga bëgg koo indil école nag jox ko ko il bon nag léegi am na méthode boo xam ne bàyyi war na ko def mooy lan mu jël xale yi génnee leen dañu dem ci waraat jàng ci école yi xam ni ñuy organiser école biñ demee Maroc foofu lañ njëkk a dem 61 ay problème am ñu ñibbisi fekk am na ñu dem Égypte dem Égypte googu oustaz Ibrahima Diop yu Diop nettali nañu ne dafa am benn at muy 1959 mu am benn congrès bu ñuy def fële ca Guinée ce que man du رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول تعالى رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول تعالى رسول إله العالمين تعالى قديمك نادى يا رسول تعالى قديمك نادى يا رسول فلا أرى فقيرا إلى غير إله تعالى قديم ثواب بالباب وهو مؤمل إيابا كريما وهو جار أطالا قديم ثواب بالباب وهو مؤمل إيابا كريما وهو جار أطالا الحمد لله رب العالمين ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci teranga ji nga xam ne yàlla dolliwaat nañu ko ci barab bi nga xam ne suñ mbokk mu baax mi suñ mag ju baax ji suñ soppe bu baax bi keroog bi nga xamee ne yàlla def na ma am xalaat ne damay rëdd juma muy 92 astafurlah muy 2012 laa ñëw ci imaam gannaaw bu ma demee ci xalifa bi Cheikh ma Tidiane mu ne moomal may naa la ndigal ca foofa tuddee ko Medina Sam ma ñëw ci imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé mu ne ma tuddee ko Medina Sam te ñoom ñaar kenn gisante wut te cosaan li jardin maraîcher la bés ba jot ah xalifa bi ebal ko mu ñëw dajee fekk Cheikh Mouhamad Mahi Ibrahima ñas ak suma mag Cheikh Ibrahima mii ñu teg xeer bi bi mu ko tegee ne ma garanti naa ne doo sonn ci jumaa ji te dana yegg teg naa ci suma bët alhamdulilah jumaa ji tabax nañ ko ba mu egsi fii demuñ fenn ma fenn yàlla di ñuy dimbale ba mu egsi fii mu egsi 2013 ñëwaat ne ko dama bëgg rëdd daara ndax jumaa daara moo gën a nekk farata mu ne ma danaa ñëw te dana yegg mu bokk ci ñi njëkk a ñëw Cheikh Ibrahima mi fekkee na ko ah sëñ maa yi tamit ñëw lee mu dem waaye xam nga ne jumaa ji ak école bii su fekkoon ne ñu amul ndigal ñoo ko ñoo ko ñoo ko sos konoon fii mu yegg nii du fa yegg te wax dëgg yàlla sonaluñ ci kenn yàlla dimbale ñu tey nag moom mi nga xam ne mooy ndey mbili gi mu ne dana ñëw dafay dem Dakar waaye dana ñëw xool ñu ñu xool ko mu xool asaar yi nga xam ne moom la fi bàyyi woon ak la mu diggaale woon boroom fu mu ci toll mu def ko daaw bëggoon naa ñëw waaye yàlla dogalu ko ngir sutante yaram moo tax ñu ngi lay ñaanal jàmm di la ñaanal sutura musuma oote dara nga nga neenal ko bi ñëw nga fukki at ak juróom muy yow ak Cheikh Mahi daaw ci heure bi sëñ Mahi bi muy ñëw moom ak poussière beeg ngelaw li ñoo ànd yu ñëwee ba fii ma xool ma ne ko gëj naa ci yàlla yàlla ju du fi taw feeg yaa ci biir tànt bi léegi naa bi mu demee bi mu demee ba këram mu ne wax ji ma waxoon daf ko fàttali li El Hadj Ousmane defoon ci jamono bàyyi dafa am jotaay boo xam ne Baye ak Alaaji Usmaan ñoo ci nekk yàlla ji taw Alaaji Usmaan aada ne téye na ndox mi mu ne loolu la fàttaliku kon imaam ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla eh, wax dëgg yàlla yàlla may na ma xas ci njaboot ak suñ bàjjan Fatimatu Zahra imaam léeg-léeg ma def tamattu ma ne Imaam Omar suñ mbokk la soppi bu baax la mbokk mu baax la xarit bu baax la loolu teraanga la ndax xam nañ la xam nañ sa maqaama xam nañ sa cër suñ mag jii tamit muy Cheikh Ibrahima wax dëgg yàlla keroog ba nga fi géejee la fi géej waaye ren bañ dajee ci tukki la ma oo wax ne ma sax ne dafa géwantu gis ma ca Kaaba ga man ak moom wax wax ju rafet suñ mag la comme ni ma koy waxee mooy suñ taaw yu bàyyi yàlla may ko mu jàng ñu roy ko ci jàng ñu mu nekk ci marché ñu roy ko ci marché bi muy góor góorgóorlu ñi di ko roy ci góor góorgóorlu plus suñ bàyyi mi nga xam ne mooy suñ xudwa alhamdulilah ci bëccëg la moo ne maa ngi jógee dakaar bés bi rek moo tax bés bii nag li ma ci oote mooy journée culturelle feeñal ndax jotaay bu mel nii wala mëjlis bu mel nii wala barab bu mel nii ñaan yàlla rek moo ko mën a saxal moo ko mën a dundal moo ko mën a saxal moo ko mën a dundal te ñaan yàlla bi ci gën a màgg mooy dajale nit ñi jox leen ñu lekk yaa ngi dégg jox leen ñu naan yaa ngi dégg jàng alxuraan ma ne gannaaw loolu la danañ fi daje di fi ñaan yàlla di fi ñaanal suñu waajur tey ñu daje fii ngir ñaanal suñu yaay maam Astou Diankha bintu alxaaji ma Abdou Niang mi nga xam ne yàlla rek moo xam lim doon baayam timin kadalika ñu ñaanal ko yàlla ndax lépp lu ñu am tey moom mii moo ñu ko liggéeyal ah démb bi ma ñëwee loolu laa la wax nga ne ma danaa ñëw fekkee si ko ñaanal la yàlla te la nga waxoon lu nga def fekk fi sa rak sa sa mbokk muy Cheikh Ibrahima fekk fi yaa ngi dégg suñ mag Cheikh Ibrahima ibnu Cheikh ma Tidiane mi nga xam ne 2016 dama toog rek suma bàyyi Cheikh Tidiane dama Omar foo nekk ma ne ko maa ngi sama kër mu ne dama bëgg a ñëw seet si liggéeyu jumaa ji ma daw jiitu ko ci jumaa ji oo waa dëkk bi yëpp même keroog moo Ngom sax ñëw na Aliou Ba ak Abdou Aziz ñi Cheikh Ahmed Tidiane dugg kontaan ne ma ah, Omar li liggéey bu la fekkoo fi ay teen ma jumaa ji am na teen école bi am na teen mu ne ma ñun ñoo ko fi gas bàyyi gasoon na fi téeméeri teen ak fukk ak benn ñaan ñaan yu kawe ne yal na yàlla yeggali sembu yi alhamdulilah ñaani daaw yi moo tax tukki mën a am ba alhamdulilah sant nañ yàlla ci tukki bi kon am nañ yaakaar ne su ngeen ñëwaatee ñaan su ngeen ñëwaatee école bi dana changé imaam ñi ngi lay ñaanal yàlla yal na la yàlla dimbale yal na la yàlla taxaw yal na yàlla may la jàmm ñi ngi ñaanal mboolem képp ku fi teew rawatina ñiñ ko tuddee Alaaji Jeeñ Mbay nga xam ne suñ mbokk la di jullit bu baax di soppee bu baax di murit sadiq murit sadiq moo koo xam ne amul farfarloo taalibe tijaan sadiq kum gis ci taalibe rek moo xam tijaan nga wala murid la dans la forme ñu la koy seddal nit ku baax la julli la tijaan la taalibe euh, Cheikh Ahmed Bamba la waaye nit ku sell la nit ku ku set xol la bu taraanga ju nekk indi na ko fii nii daal xeeb ko jumaa ji keroog bañ ko ubbee ba léegi ñi ciy njëkk ak ñi ciy mujj ci la bokk ñi ngi sàpp ngeen ñaanal ko yàlla yàlla guddal fanam ak Pape Ndaw bii nga xam na tamit doom la ci suñ mbokk muy baayam nga xam ne école bii tey su ma koy am gannaaw yàlla moom la ndax bi ma rëddee jumaa ji fii nekk mbalit ma ne ko fii de dama koo soxla mu ne ma soo ko soxlaa da nga ci jot fanweeri nit ak juróom-ñett ñoo ko moom fanweeri nit ak juróom-ñett ñoo moom kër gi mu toppatoo ko at ak genn wàll ñu jaay ma ko ci 19 million ma jënd ko ma ne daara laa koy def tuddee ko Cheikh Ousmane bi nga xam ne jëmmi daara la woon dundam yëpp jàng ak jàngale moom la ci def moom tamit mi ngi nii taxaw na ci bés bi ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal fanam di ñaanal Ndeye Diagne mi nga xam ne doomam Kabila bokk na ci ñi ñuy rendre hommage ak euh, mbooleem ñi ñu ko tuddee suñu limee dañuy juum waaye ñii mooy ñi nga xam ne ñoo teewaale ci suñu kàddu école bi nag. waaw waaw mu ne euh, biñ xëyee euh, xale yi tari nañ euh, ci tari mu set ecole bi Cheikh Ibrahima mii nga xam ne muy muy ñu gën koo xam ci bàyyi mu bajan Fati Ibro moom moo ma tas jeex ndax 2019 benn classe rek moo ci nekkoon ma ne damay ubbi ma dem ba ci yàgg ma la ko bàyyi damay bàyyi ba école bi ubbi ba école bi mat mu ne école du mat ne ma école imam bi muy commencé amutoon lim bii wax moo ñu encouragé tey ba ñu am juróom benn classe te incha allah balaa déwén danañ ci yokkaat yeneen juróom-ñetti classe loolu yëpp ci moom la at mii nag nga xam ne yaa ngi dégg mooy sena dirase bii ñu nekk alhamdulilah lañ amoon daaw ak liñ am ren bokkut ren la gën a yokk te mbooloom daaw mi moo ko indi moo tax ren ñu ne jotaay bii daal dutuñ ko ba danañ fi dajee ànd ak suñuy mbokk ànd ak suñuy soppee ngir lan ñaan yàlla ah ñaanal suñuy waajur yi ak mboolem suñuy kilifa yi pour barab bi mën a dund kon ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñaanal yàlla ci nga ñaanal ñu yàlla ci école bi ak li ñu amagum ci ay classe mën na juróom benn classe tabax nañ fi ñaar fukki classe ak ñaar lu bokkut ak idaara bi nga xam ne dana mën a tàmbale ibtidaa yi ba sënew yi yaa ngi dégg euh, ñu jàng jàngale fi franco arabe am na timin majalis yu yëpp euh, jardin bi ma tuddee ko suma yaay maam asu jànqa nga xam ne xale yi suñ ñëwee am ci ñetti at ñu yóbbu leen ci ibtidaay bi euh, da école bi ñu tuddee ko suñu bàyyi Cheikh Ousmane Fati bi nga xam ne tey nuñ mel tey gannaaw yàlla moom la lii daal moo doon kàddu yi Cheikh Imam ñu jox la rek nga sànni say kàddu wala ñu jox Cheikh Ibrahima mu dalal la ndax mooy magi jotaay bi mooy taaw ci kër Alaaji Usmaan euh, mu dalal la après nga ñaan euh, thème bi nag euh, ñi ngi ko doon waxtaanee Cheikh Mouhamad Nazir ndax li mu def ci langue arab nga xam ne tamit suñu wëllëre bàyyi la woon ndax doomam ji su ma bàyyi la ko tuddee muy Alaaji Usmaan loolu rek sharaf la yaa ngi dégg nekkoon soppeem ñu bokkoon métier ñu ne daal tey gannaaw yow mu thaqaafa la te ki gën a liggéey ci langue arabe gannaaw Cheikh Ibrahima Cheikh Nazir ci la bokk ñu ne tey waxtaan wi ci moom lañ koy def ñu tànn oustaz Muaz bi tey mi nga xam ne kenn la ci njabootu Cheikh Nazir yi bi ngay ñëwat la commencé doon waxtaan ci dundam ak ci jaar-jaaram far nga ñëw mu xam nañ ne daa bés bi dafa xat ñu ne nañ la tatagal euh, euh, tarxib la ñaanal la yàlla nga ñaanal ñu yàlla ñu jàll nga xool li nga ñaanoon ñun ñi ngi wax amin xam nañ ne li nga ñaanoon yàlla nga koy nangu yàlla na ko yàlla gën a nangu ah, bëgg nañ fay def benn clinique boo xam ne maam Astou Diankha Bintou Hadji Abdou Niang lañ koy tuddee incha allah danañ jàpp beneen bés bu duut bés bi ndax fu école am juma am fa ah, ah, clinique war na fa am te wax dëgg yàlla suñ ko defee dañuy def rek pour dimbale eh, waa waa waa koñ bi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 fadilatul imaam di ko gërëm ci teewaayam waaye di nuyu fadilatul xalifa xaadimul umma nga xam ne mu nga tey ca réewi Gambia di fa taxawee jotaay yu mel nii ñu sant yàlla bu baax ci sa teewaay fadilatul imaam ak couleur yi nga xam ne moom nga sàmm ba teewaay bi nga teew ko di nuyu suñu rakk Cheikh Omar Usman, Nias Diko ko ci jotay bi nga xamne mom la sos ak sembu yi nga xamne mom la fi sembu di ñaan yalla yalla yalla yegali sembu yi te ñepp nek njirign ñeel mboolem julit ñi comme nim ko waxe kérok bu ñuy tek xéer wi ño fi daje nga ñaan mel na ni yàlla nangu na ñaan googu tey juma lañ tegoon xeer mu góorgóorlu ba juma ji egg fii mu egg tey te ku ne xam lan mooy juma ak lan moo nekk ci yoolu juma yonent bi lim wax man bana masjidan yuskaru fiha ismallahi banallahu lahu baytan fil janna ku tabaxal yàlla lu em ni néegab yàlla dina la tabaxal njëndi ci aljanna kon dafa mel ni yàlla may na ko tey yool boobu ak yoola képp koo xam ne def na ci ku tabaxal yàlla nag ku ca bokk ku ca dimbale ñii nga xam ne ñoo yombal am bi loolu yépp ya seen dana diri seen mbaadam ci yéen kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant mboolem mbokk yi nga xam ne teew nañu fi muy mbokk ci Guédiawaye ak mbokk ci Maine ñoom ñëpp teew nañ fi pour taxawal euh, bés bi pour wéyal ko ni mu ko waxee nag dafa ñaan yàlla bés bii dootu ko bàyyi mukk ndax waxtu wu nekk bu ñëwee gën a rëy gën na feeñ ci loolu loolu itam ndax dajee boo xam ne. dafa bokk ci man na sunnatan xasanatan falahu ajruha wa ajuru man amila biha ila yawm alqiyama ku ne xam na ne lii sunna bu rafet la daje ak ay ay jullit daje ay mbokk daje ay taalibe di jàng alquran di jàngale xam-xam di jàngalante loolu ku ne xam na lu rafet la te sunna su rafet la kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla jox yool boobu ak yoolu képp ku ko jëfee ba bés penc mën nañ ñoo wax itam ne mu ngi fiy daje di ñaanal ay waajuram yonent bi nee na ida mata ahadukum inqata amaluhu illa an salaasin sadaqatun jaariya aw ilmun yuntafau bihi yadu llaha lahu kon yii yëpp mën naa diri sembaanam ci moom mu ngi ñaanal ay waajuram mu ngi def sadaqa jaariya ndax tabax école ñun ñu fay jàng ay yu ñu ilmun yuntafau bihi ku fa jàng ak ku fa jàngee ci ku fa jàng lépp yàlla dana ko jox yool boobu ëllëg euh, bés penc doon jëf la joo xam na du dog mukk laa den kon ñu ngi lay ndokkeel bu baax ci loolu di ndokkeel mbooleem mbokk yi fi teew waaye gën a ndokkeel suñu mbokk suñu euh, soppe suñu imaam ku ne xam na ne euh, itte yu bëri la am waaye bu doxee itte dagee itte yooyu ñëw teew fi ñu gis ko mu gis ñu rek loolu lu rëy la ci ñun ñu ngi koy sant bu baax ci turu njaboot gi lépp lépp lépp di gërëm di la ñaanal yàlla yàlla na la yàlla may wér itte yi nga xam ne moom ngay taxawee nga xam ne ku ne xam na ko muy itte yoo xam ne ci dëkk bi la ak dëkk bi loolu ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla may wér joo ko taxawee yàlla na yàlla may kàttan ci duñ guddal wax ji ndax xam nañ na ci yoon nga nekk dañuy dellu rek di la ñaanal waaye di dolli di gërëm suñu rak di ko encouragé ci lii nga xam ne moom la donn moom la fekk di ñaan yàlla yàlla na ko ci yàlla dëgëral yàlla na ko ci yàlla dimbale yar ay nit yonent bi dafa ne mën man àllamaka xarfan fa huwa mawlaaka ku la xamal benn benn baat moom mooy sa borom kon nag boo tabaxee école ak daara di ci jàngal ay nit loolu kenn xamut fayam mu yem kon ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla na la yàlla dëgëral du nag lu tumurankee ndax tuba arab yi dañuy wax ne la garwa an yaxzuwa al fata xazwa walidihi kon euh, boo ko defutoon moo ci lay tumurankee waaye boo ko defee du tumurankee nga ci ñëpp ñu ngi lay ñaanal yàlla comme ni ñuy ñaanalee say mbokk ak say rakk sa rakk Cheikh Tidiane sos na lu mel nii fële ñoom itam ñu ngi ko ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla dimbale ba loola egg ak jàmm loolu moom la ñuy wax fii ci kanam imaam keroog ba cheikh di sos noonu la bàyyee itteem ñëw teewe ko te xeer wi kon yooyu yëpp li muy tekki mooy dangeen a xam li nga xam ne mooy couleur yi takkoon sama bàyyi ak euh, surtout sama bàjjan Fati couleur gu yàgg la imaam assan nettali na ma ne ma bi muy jàng sama bàyyi fonk gi fonk jàng ak fonk gi fonk xam-xam moo tax waxtu wu ñëwaan euh, vacances bala ma fee am ñetti fan sama baay dana jël ab gàtt yónnee ko bajan fàtti ne ko ganaleel imaam loolu kóllëre la goo xam ne mosta dog dégg naa ko mu wax ne ca mbitee ne li ñuy wax ne xarit duñ ko donn waaye yéen ñii dey seen xarit ak bàyyi donn ngeen ko tudd njaboot gi yépp kóllëre gi am ak moom te loolu defuñ ko lu may ne inna min abaril birri an yasilal maru ahla wuddi abihi moom imaam Assane moo ma nettali ne ma sama baay sama nijaay Ousmane moo ma njëkk a jox kayitu ñaar fukk pour ma jàngal ko Yaasin loola yàgg na lool kon ku ko fonkoon la te sama baay ku fonkoon lim la fonkee mooy diine ak jub ak baay bëgg gi ko bàyyi bëggoon loolu bokkoon na ci lu ko li taxoon mu gën koon fonk kon Euh, loola ba léegi mooy wéy ci suñu diggante ak imaam Cheikh Tidiane Ali sise mii nga xam ne lépp lu imaam Assane nekkoon mu nga ca lépp loo xam ne mu ngi ko doon dox ci kóllëre mu ngi ci ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla dëgëral sa taxawaay nii ñu ko defee woon ndax amul lenn lu may le lu euh, baax dañ koy euh, fekke keroog ba Cheikh mii di teg xeer wi dama laa jox ne la damay barkeelu ci lii tey jii itam damaa ñëw pour barkeelu li ci lii dimbalee ko suñu rakk lii sa loxo laa ko tegoon keroog nga teg ko ci loxo Seex tey jii sa loxo laa koy tegaat nga teg ko ci loxo Omar pour mu jàpp jàppandi ko jàppale ko ci liggéey bi xam nañ ne lim ci war a def def na ko ñu ngi sant yàlla bu baax ci loolu bismillah asalaamaaleykum alhamdulilahi wa kafa wa salaamun ala ibadihi alladina stafa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معي نيو الشيخ عمر من الشيخ عثمان يس دي نيو مغم الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عثمان دي نيو الشيخ إبراهيم ابن خليفة الشيخ أحمد تجاني الشيخ إبراهيم دي نيو محمد الشيخ محمد لمين ابن الشيخ حسين يس cheikh mudir Mouhamad Nazir Niang ak mbooleem ñi ñu fi fekk ñëpp ci suma tur ak turi cheikh Ibrahima Diallo bi ma àndal ñëw léegi lañu waxtaan dafa ñëw suma kër ma ne nañ dem ci yëfi cheikh Omar mu ne ma waaw bëggoon naa cee dem kon nañ ànd ñu ànd ñëw ngir ndokkeel ak ñaan yàlla ak xool liggéey bi fi mu toll gis nañ li mu fi def yépp bi ñu fi géejee fi mu tolloon ak bi ñëwee tey fi ñu ko fekk yàlla na sa mbir yëpp di demee noonu rek di dem ci kanam lu dellu gannaaw mukk yàlla mën loolu yàlla na ko def kontaan nañ ci bu baax a baax a baax te ànd nañ ci benn baat boo xam ne baat yi ngërëm la bi nekkee ci oto bi di ñëw ne bu baax nga lu baax ngay dox kon lépp loo oniré woon na ca dem yàlla na la yàlla gën a dimbali yàlla na la yàlla yokk yàlla na yàlla barkeel yàlla na yàlla aar la wattu la te dimbale sa mag Cheikh Ibrahima mii ci dimbalante bi nga xam ne mu ngi koy def ak yow bi ñu ko fekkee fii moom itam kontaan nañ ci loolu bu baax a baax a baax ndax arab yi naa xaaka xaaka nit ki mbokkam rek la am la su mbokk dox nga ànd ceeg moom rek mu nga ànd ak doole joo xam ne du xam sax fu mu toll waaw na man daa xam law ko saa ni dal hay jaabi xëy silaax yi am na waaye nag bu ca mbokk bokkee mu gën a dëgër yàlla yokk loolu yal yàlla yàggal taxawaay na loo xam ne boo jur yi bu leen fekkoon tey danañ kontaan loolu lii nga def itam tuddee ko mm, sa yaay yool bi dellu ci moom kontaan nañ ci bu baax a baax a baax ndax wax dëgg yàlla jigéen ju baax a baax la ju am ngërëm ci mag ñi fi mu nekkoon am na fa ngërëm mag ñi fi nekkoon itam am nañ ci ngërëm te man li may wax dama ko xam ku am ngërëm la moo tax lépp loo am du bet kenn waaw waaye yàlla yàlla yokk ci zahir yokk ci batin yàlla na yàlla jox la loo xam ne gisaguñu sax commence commencement bi te ñu fekkee ko ñun ñëpp te sa lépp itam yal na ko matal mu fekk ñu fi ñuy gërëm bu baax ci jumaa ji yool bi ci nekk yàlla rek moo ko mu toll ndax ni yonentu bi wax mu ne lu em ni fu pitax di boofee boo ko tabaxalee yàlla mu tabaxal la néeg fa moom ci aljaana waaye mu ne néeg fa moom ci aljaana bokkut ak néeg rek dëgg ci aljaana néeg fa moom ci aljaana moom la yàlla di jox loolu nag da nga amee ci lii da ci amee loo xam ne itam kenn xamu ko sax yàlla rek moo ko xam te dana la ko defal insha allah ñu gërëm ñu ngi sant ñu ngi ñaan fu mën a toll. ñu ñaanal dëkkandoor yi itam ñi nga xam ne ñoo dëkkee fii jumaa ji nekk nii ndax keroog ba ñuy teg xeer bu njëkk bi. am na laay ju ma jàngoon ma ne innamaa ya'muru masaajida llaahi man aamana billaahi wal yawmil aaxir ma ne taamir nag ñaar la taamir yi nit ki jóg pour tabax juma loolu taamir la waaye des na beneen taamir boo xam ne dëkkandoor yi ak mbokk yi ak ñi dëkkee boor bi ñuy tabax jumaa ji ñoo koy def mooy di dundal jumaa ji ci julli yi di ko dundal ci sikkaar yi di ko dundal ci wasifa yi loolu nag dëkkandoor yi ñu ngi ci te topp nañu ko ba xam ne ñu ngi ci kon ñuy gërëm di ñaan yàlla mu gën leen a dimbale ñuy dox seen diggante kër yi ak jumaa yi ndax loolu rek moo tegtale gëm yàlla yonent bi ne na bu ngeen gisee góor mu baaxoo di dem ci jumaa yi di dellu këram kooku seetal leen ko gëm yàlla loolu nag ci ngeen nekk yéen seen jigéen ñi ngeen nekk tam liggéey bu ñu fiy def tam aju ci loolu ñoom ñépp a yóg xaw nekk benn ndaw di dimbalee Cheikh Omar ci liggéey bii nga xam ne moom la nekk yàlla yàlla gërëm leen yéen ñëpp yàlla leen yàlla dimbalee fii ngeen dëkk yàlla na ko yàlla dundal te dundal ko ci lu baax rek waxtu nekk ngeen di am yokkute ci seen jëmm di ko am ci seen doom di ko am ci seen mbir lépp te lépp lu ngeen am rek yàlla na ko yàlla barkeel te barke bu fi wàcc itam yàlla na sax waaw yàlla bu mu wàññeeku yàlla bu mu dem barke Mawlaana شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يس ci barke Mawlana Cheikh Ahmed Tidiane ci barke Mawlana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak ñi nga xam ne parents yi nga xam ne ñu ngi indi seen doom yi ñuy jàngi école bi ñoom itam dañ leen gërëm te sax dañ leen a war a ñaanal yàlla wan leen ne dafa teg ngeen seen doom yi ci yoon woo xam ne danañ mucc te danañ nekk ay borom xam-xam ëllëg yoo xam ne yu jëriñ la ci borom xam-xam dafa rëy lool ndax yonent bi na man xalata aliman ndax Allah saliman seen doom yi bu ñu mujjee nekk ay borom xam-xam ba nga xam ne lépp lu ngeen soxlaati ci diine ci seen biir kër yi ngeen koy amee loolu tam jar na pour nekk indi doomam mu ñëw jàng si te ku fi sa doom dugg rek wér na ne dana génn ak alquran dana génn xam-xam te dana génn xam-xam boo xam ne tam bu barke lay nekk dana génn xam-xam boo xam ne bu jëriñ lay nekk yàlla ngeen ko yàlla defal yéen ñëpp te saxal ko ba ci sët sataat yi te lépp njëriñam yàlla ñu fi fekk ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci barke Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu ci barke Cheikh Ibrahim radiallahu anhu ci barke alquran yi nga xam ne wàcce nañ ko fi ak mbooloo mu hiiw mi nga xam ne ñoo fi dajee loolu yëpp barke bi ci nekk ñu ñaan yàlla yàlla na ko def ci mbir mi te yàlla na ko saxal waaw ñu ngi kontaan baax a baax di santaat yàlla benen yoon di wax ne suñu kóllëre gi nii ñu nekk ak yow daru koyak ko xam dara ko yàq ndax mbokk gi mu ngi ci waaye am na lu gën am solo mooy ne yàlla mi tax bàyyi dañ ne ko sa mbokk ak sa xarit ku la ci gënal mu ne xelante woon ma am mbokk moo xam ne mooy nekk xarit mu noppal ma rek waaw mu gàtt noppal ma xelante woon sama mbokk di sama xarit loolu nag moom la yàlla defal yàlla na yàlla saxal loolu jërëjëf jazaakumullaahu xayran bu nekk na jàng Faatiha ak ñetti salaatul Faatiha li ñu fi ñaan yëpp yàlla nangu ko te yàlla faj mbooleem aajo yëpp te képp ku fi booy ñibbi yàlla nga dellu ak barke dellu ak aajo yu faju ñu ngi tatagal imaam Cheikh Ahmed Tidiane yi ak mbokk yi mu àndal yépp ñu bëgg a continuer waxtaan wi ñu commencé woon ñu ngi nekkoon di wax ne alquran dafa ñëw lënkale arab ak lislaam ñu wane ne relation bu dëgër boobu diggante lugal arabiya ak lislaam ak wàcc gi nga xam ne alquran dafa wàcc nekk arab loolu moo tax cheikh ibrahim radiallahu anhu mu ittewoo alquran ittewoo lugal arabiya ci jàng ko ak di koy jàngale waaye ñu wax ne ittewoo googu mu koy ittew daf ko donnee ci way juram mu cheikh alxaaji abdullah mi nga xam ne moo daara yi moo sos jàngu yi moom moo mosoon wax ne te jële naa ko ci cheikh Mouhamadul Mahi al mu ne daf leen dafa doon wax ca jamonoom njaboot gi ne leen ku ci mokkal alquran danaa la takkal soxna yore la ak moom lu mal at loolu mooy ne mu ngi doon jàngale di dimbale njàngale di ci góorgóor may wax ne relation boobu nag nga xam ne Maam El Hadj Abdoulaye Niass ittewoo njàng ak njàngale tax na mu jóge fi dem Gambia nekk fa rawale doomam rawale njabootam ngir ñu jàng alquran jàng seen diine Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu muntoon a def lu moy loolu loolu moo tax bi nga xamee ne majaalis yaa ngi fi école yaa ngi fi moom itam mu ne jàngu bi dafa war a dëppoo ak jamono mu ne pour école yi nag daara yi ñu dëppoo ak jamono mu commencé jël njaboot gi nag di leen yóbbu ci réewu arab yi ñuy jàng am na ñu njëkk a dem Maroc avant loolu am na ñu dem fii ci Mauritanie ca Alaat jàngee fa am ñu ñibbisi mu am biasa bu njëkk am Maroc lañ leen yóbbu ay problème am fa ñu ñibbisi bi ñu ñibbisee bi ñuy dellu fekk am na ñu leen njëkk Égypte doon naa wax ne Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop dafa ma nettali ne dafa am congrès bu amoon fële ca gine gine Conakry bàyyi ñu invité ko mu war a dem mënta dem mu yebal ko moom mu dem ci kongre bi ba mu demee délégation yi jóge ci réewu arab yi yu bëri mu taseeg ñoom ñu jóge Irak ñu jóge Égypte ñu jóge Maroc ak yeneen réew ak même ñu jóge libi ñëpp sa taseeg ñoom yàlla def délégation bi jóge woon Égypte ki ko jiite woon Anwar war la woon booba mu ngi nekkoon agent bo xamne mu ngi nekkoon ci ministère des affaires étrangères yoré affaire coopération ak tadaamul ci Afriqiya mom Anwar Sadat bi mu waxtaanee oustaz mu ne ko sëriñ bi ngay wax expliquer ko baye yoy mu ne koku dal bëggoon naa mu ñew fele ci Égypte gane si Jamal Abdou Nasser loolu 59 le ba yalla def nja ngan lu njëkk le 61 ñom Alaaji Abdoulaye ak oustaz Barham Diop ak oustaz Babali ñoom ñoo fa demoon ba ñu dellu see nag la bàyyi après 61 la fa dem ñu may ko ay bourse njaboot gi commencé faa dem ñële bi ñu jógee ko Maroc ñëw ñoom itam ñu dem fekk leen fa loolu boobu la Cheikh Nazir nag dem Maroc dem Égypte nag dem jàngee ji fa loolu mën nañu wax ne ay 64 la Cheikh Mouhamad Nazir moomu ñuy wax mën nañu wax ne <coughs> te am na solo ñu jàpp date boobu noonu mooy ne mais mai 1938 ci la gane àddina jàppal 20 mai. 1938 ci la gane àddina jàng ci alxuraan mokkal ko jàng ci daara baay Amadou Thiam daara baay Serigne Aliou jàngee ci baay ba 64 yàlla def bi mu jógee Maroc ñu dem Égypte ba mu demee Égypte def na fa juróom def na fa ñeenti at ba 68 1968 baay di aji mu jógee ko Sénégal. jaar Égypte pour dem Màkka ci aju 68 bi bàyyi ba mu demee la waxtaan ak njaboot gi ne dafa bëgg a moderne dafa bëgg a beesal école bi beesal daara ji def ko école fekk boobu école bi commencé woon na ko avant indépendance parce que Oustaz Ibrahima Mahou Diop nettali nañu ne ci kër Baye tabaxoon nañ fa école boo xam ne madrasatul falaax lañ ko tuddee woon madrasa boobu avant indépendance la woon daara jooju noonu avant indépendance ca la ko tubaab bi ñëwoon ne ko daara ji ngay tabax ndax am nga autorisation mu ne xaw ma autorisation de mais daara ji man ci laa génnee daara jooje nag après bi nga xamee ne 68 jot na bay di aji jaar maro jaar Égypte fa la waxtaanee ñoom ne daara ji daf ko bëgg a beesal bëgg ko tabax mu dëppook jamono te bëgg na ku ko yore xanaa bon ndekete njaboot gi mënuñu woon a ñàkk a dem Égypte mënuñu woon ñàkk a dem maro nga dem Maroc xool fa xam ne ñuy jàngale. nga dem Égypte dem ca école ya xam na ñuy jàngale ñu tànn ci kenn nag indi ko gis na ni ñuy jàngale ci école mu toog a ñëw nag yore école bi kooku mooy Cheikh Mouhamad Nazir Baye indi ko nag gannaaw boo xamee ne dem na xool na am na lu mu gis ci école yooyu xam na école parce que bi ñu jógee ko ci daara ji rek ku leen joxoon école ñu xam école nuñ koy yore bon dañoo war a dem e Maroc dañoo war a dem Égypte jàng fa xool xam école ni ñu koy yoree ñu doog a si nag yore école bi Cheikh Mouhamad Nazir ñëw nag ñu jox ko école bi en 1968. mën nañ wax ne école boobu tabaxaguñ ko wala dañ koy commencé rek pareegul ñu njëkk a jàngee foofu nettali nañ ma ne ñu ngi doon jàngee ci étage bi ci suuf foofu ci garage bi fa lañ doon jànge tabax ñu nekk ci tabax école bi ba 1970 ñu inauguré école bi mais xoolal ma nag Cheikh Mouhamad Nazir ñun suñu école yii ñu yore nii waxuma la. kuy nekk directeur d'école waaye bala lañu laa jox classe nga ne da ngay jàngale li ci gën a néew danañ la yor di lay jàngal nan la ñuy jàng di lay wax ni ñu koy defee di la yóbbu ci école yi ngay xool di jéem lu mat at bu njëkk dañ ko doon def ñeenti at léegi lañ ko wàññi boo amee baccalauréat ñu yóbbu la EFI nga def fa juróom-ñeenti weer ñu doog a ñëw jox la classe xoolal nag koo xam ne dañu laa jëlee ca daara ja rek jëlee ca école ba rek ñëw jox la daara école nag ne la yore ko programme ban ngay jàngale ban la. programme amul Cheikh Mohammed Nazir dafa war a xalaat ban programme lay jàngale ban curriculum la contenu bi lan lay doon nan lañ koy jàngale yan heure lañ war a jàng yan heure la ñuy wàcc yan bés la ñuy jàng yan bés lañ dul jàng loolu yëpp conception bi Cheikh Mohammed Nazir moo koy def te nag kenn formé wu la ci kenn jàngalu la ci beneen difficulté mooy ne école bi. biñ ko tabaxee bees presque ñeenti classe a fa am te xam nañ ne madrasa ibtidaaya école élémentaire juróom benn classe lay doon bon noo koy defee beneen yëf mooy école bi am na ay xale yoo xam ne xale yu ndaw la ñu doon juróom-ñaari at ñu doog a ñëw ci école am na ñoo xam ne tari nañu alxuraan soog a ñëw am na ñoo xam ne jàng nañ ci yeneen école yeeg yooyu soog a ñëw noo leen di boole xale yu ndaw yi nga xam ne seeni at bëreegul ñun suñu école yi boo ko seetloo juróom-ñaari at bu booy bind la xale bi ñaata at la am parce que bëgguñ boole mag ñeen ndaw ñi ñi dañuy influer ci ñeneen yi Cheikh Mouhamad Nazir xaaj classe yi boo demee sana ula muy première année dafay am ndaw ñi mu ber leen mag ñi mu ber leen classe yi bariwul de mais am na ñuy jàngee sax ci ron garab yi ñu dem ba mujj gi ñu dem ba am idaadiya biñ demee ba 74 mu xam ne am nañ enseignement moyen secondaire moyen moo amagum mu jël ay jàngkat yoo xam ne dañuy jàng ci école bi mu leen di utiliser ñuy jàng en même temps ñuy jàngale fekk li jiitu loolu amoon na ay mbokkam ay xaritam ahlan oustaz Cheikh Omar Gueye fadal Mouhamad Omar ma wax ne dama bëgg wane rek damay parce que li ñu bindoon duñ ko mën a toppee niñ ko bindee damay tënk yenn yi rek wane ne bi muy ñëw mbir yi yombutoon amoon na ay jafe-jafe mooy élémentaire bal nga am shahada ibtidaaya da ngay am juróom-benni classe te classe yooyu tabaxuñ ko fi rawatina classe bi dafay fees te am nga ñu mag am nga ñu ndaw noo leen di def Cheikh Mouhamad Nazir nag foofu la. xalaatee mu jël classe bu nekk mu xaaj ko ñaar ñu ndaw ñi mu berleen ñu mag ñi mu ber leen loolu muy benn solution ahlan bi Oustaz ma ne mahad biñ koy ubbi 68 inauguré ko 1970 ñeenti classe yuñ tabax la amoon ak bureau sana ula ba sana salisa am mustawayaat yi uute Cheikh Mouhamad Nazir xalaat gannaaw bu mu xalaatee am manhaj am ay muqararaat am nu muy évaluer loolu yëpp te amul koon kenn formé wu ko ci am nag ay mbokkam yu ko ciy jàmbale mën naa ci tudd oustaz Ibrahima Niang daf ko ci daan jàppale mën naa jàng oustaz Baba Agne daf ko ci daan jàppale mën naa tudd même Sidi Lamine rahimahullah léegi-léegaan mu jaar fa ko ci jàppale boobu ñu ñeek ay élève di fay jàng oustaz Ibrahima nee na Sidi Lamine jàngal na ko foofu ci école gis nga

bi ñu doxee dox Ankay Jamaal moo fa nekk toujours bi ñu demee ba nga xam ne égyptiens yi ñëw nañu école bi am iadaadiya nag li ko dalee ci 1976 te ñeenti classe ya fi nekk ak classe franco arab yi mu am ay jafe-jafe nan ngay def Cheikh Ahmadou Ahmad Nazir ne heure yi ngeen doon dugg di dugg 8 heures ba midi dama koy wàññi xale yi dañuy dugg 8 heures ba 11 bu ñu génnee yéen ñii ngeen dugg nag 11h ba 2h bu 2h ngeen wàcc trois h yéen ñooñu nga xam ne naar yi ñoo doon jàngal xale yi ci suba 8h ba 11h yéen su ngeen ñëwee ngeen ànd ak xale yooyu di leen jàppale. bon dafa jëloon ñeent ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ci école bi mu def leen ay mudarrisiin musaaidiin ñuy ay auxiliaire nga xam ne bu naar bi di jàngale da ngay teew ànd ak moom su 11h jotee yow nga dem jàngi. su deux heures jotee nga wàcc dem noppalu une trois heures nga ñëw gont ànd ak xale yi di répété li leen naar yi doon jàngal ci ngoor gi xanaa bon foofu réglé nga ay problème yoo xam ne mu ngi fi woon yu di ngeen mbir yooyu noonu suñu école yu bees yi dañuy am problème yooyu ay classe multigrade yeeg ay double culi yeeg ba université problème yooyu dañ koy am mais Cheikh Mouhamad Nazir fan la jëlee loolu ban école la ko jàngee fenn bi durba bil mumarasa dafa doonoon nit koo xam ne situation bu ñëw mënoon na fexe ba surmonter ko loolu la Cheikh Nazir doonoon donc ndekete bon ñoom ba ñuy dem keer di jàngi doon nañ jàng pour am xam-xam mais doon nañ jàng pour xam école tam nuñ koy yoree te Cheikh Mouhamad Nazir ku ko xam xam ne nit la woon ku woyof nit la woon ku mën a dëppoog jamono jëlal maas bi tey léegi rek wala keneen fii ngeen teg ay ndënd léegi teg ay lii ngeen ne ko théâtre baa ngi nii kaay woy du ko woy amut sajaa adabiya boobu amut souplesse googu mënu ko mënu koo def mën Mohamed amul problème yooyu dafa am ouverture dafa ubbeeku dafa woyof oyof googu nag moo ko dimbale ba nga xam ne lu bari mën na koo rek la ci njàngale te nga tudd naa fi ñooñ nga xam ne ñoo ko doon jàppale ci njàng ma ne mën nañ wax ne ñàkku jàngalekat yi donc réglé na ko ñàkku classe yi réglé na ko mais ñàkkub jàngalekat yi mu ne bon xale yi nga xam ne ñoo jiitu woon ci école bi danaa leen jël di leen utiliser danañ xamaane nu ñuy jàngale en même temps danañ jàng loolu moo tax ñun bañ fa nekkee di def suñu enseignement moyen jàng nañ ñàkkuñ woon suñu njàng mi mais doon nañ ko jàppale aussi ci njàng mi loolu noonu réglé na ko gis ngeen. te Cheikh Ibrahim tam bàyyeewu ko ko woon gis ngeen bañ demee ba 1972 am na lettre boo xam ne Baye daf ko bind étudiants yi nekk Égypte parti bi ci intéressé waxtaan wi rek laay indi mais am na yeneen yu ca nekk mu leen wax ne benn benn société bu ñuy wax dragage commencé na di yokk jumaa ji ñu ngi commencé tam jéem a yaatal jum yaatal école bi boobu lañ tabaxaat yeneen classes mu ñu tabaxaat ci école bi ci boor bële. tabax école yooyu biñ ko tabaxee bàyyi nag daal di dugal meneen njàng mu bees ci école bi mooy ubbi fi nag benn département boo xam ne franco arabe la mën nañ wax ne bu dee école tasaare ko nii ci réew mi ay franco arabe bàyyi amoon na ko fële ci Dakar rue Raffinel angle Escarfet ubbi woon na fa franco arabe ci ñi ko fi njëkk ubbi la bokk c'est vrai que école Falilou bële Mbàkke franco arabe la mais franco arabe yi am ci réew mi nii nga xam ne njàng mi dafay équilibré fifty fifty li anglais yi wax cinquante pour cent cinquante pour cent mën nañu wax ne fii ci réew mi Cheikh Ibrahim moo ko fi njëkkee wala ñi ko fi njëkkee la bokk te loolu en 72 la ci biir école bi mu am benn enseignant mbokku taalibe nekkoon ne nekkoon enseignant retraité ñu koy wax Ibrahima Thiam ñu gën koo xam ci Thiam Gaynde moom la bàyyi dénkoon direction école franco arabe boobu mu yore Cheikh Nazir yore direction bële mom mu yore bi ñom ñaar ñuy cohabiter ci biir école bi yore liggéey bobu tay jii ni bo demé ci franc arab bobu amna ñu fa génne ño xamné ñi ñii ñu dem naza amna ci amna ñu nekk dem fenen ñu dem fenen ci franc bobu lañu génne bo demé ci dëkk bi fi ni ak biir Dakar ak yoy amna ño xamné fofu lañ doon jàngé légui ay cadre lañ te ci franc arab bobu lañu génne loolu itam bokku na ci liggéey yi nga xamné cham gay ni ànd na ak Cheikh Nazir ñu liggéey ko lool motax ñu ne bobu ñaari direction mo am ci école bi bu franco arab bi ak benen mën na maa wax naa leen ne après égyptiens yi ñëw jarul may tudd seen tur yi am naa leen mais loolu intéressé wuñu bi ñu ñëwee nag la école bi doog a am enseignement moyen mu commence 76 so moyen mooy ñi nga xam ne am nañ certificat ba pare dem di uti brevet bi ñu demee ba am brevet nag njàngale moom ek bi sa boobu noonu amoon nañu ñu doon def sharia am nañu ñu doon def daawa mais amuloon ñu doon def nag li ñuy wax ulum ijtimaaiya mooy géographie ak histoire bàyyi mi nga xam ne mu taxas ci loolu moom xam na ko amul woon amul woon ku doon jàngale mathématique amul woon ku doon jàngale ulum muy science loolu tax mu dir demaat nag Égypte dafa doon def chaque vacance bu école tëjee dana dem Égypte dem Azhar waxtaan ak ñoom pour amaat ay jàngalekat jàngale biasa deuxième biasa bi ci la ñoom Nabiir ñëwoon ak ñoom Musaylix ak Iwad Iwad di jàngale taarix ak géographie Musaylix di jàngale ulum Iwad di jàngale riyadiyaat fekk biasa bi ko jiitu woon amoon na koo xam ne defoon na service militaire defoon na riyadiyaat mais sori wu ci woon ñu koy doon wax Sadiq Salabi moom moo doon jàngale kusuur ak yenn yi pour préparer deuxième biasa bi bon ngeen xam ne Cheikh Nazir yàlla deful ko woon mu def formation pédagogique mais yàlla mayoon na ko mawhiba bi noonu la régler problème yooyu loolu moo tax gis nga école bi biñ demee ba jógee koo fii am na ñoo xam ne ñii ay ingénieur lañ ci école bi lañ génne am na ñoo xam ne ñii mathématique lañ def ci école bi lañ génne am na ñoo ko am ne tijaara commerce lañ def ci école bi lañ génne mais mu mudir am na loo xam ne réussiru ko mooy jéemoon na ko mooy jéemoon na fexe ba nga xam ne maahad bi diplôme yi fi nit ñi di am ak diplôme yi ñuy def Azhar dañuy am équivalence bi am muadala bi nga xam ne xale boo amee fii baccalauréat soo demee Azhar da ngay dem direct université mais ba mu demee toppatoo ko boobu Abdourahmane bi sar moo nekkoon wasir wakilul Azhar mu dem ci moom négocier ak moom loolu bañ d'accord ci mais liñ ko waxoon mooy il faut mu am nag ci réew mi fii ay alaaq réew mi ci boppam d'accord ci te loolu moo jafe woon donc moom doxoon na ci mais réew mi nanguluñ ko ko woon loolu moo taxoon loolu amu ko mais bu ko amoon konoon fii mu nekk bëri na ñoo xam ne dañuy dem di def lu dem dem dañu amee bac rek dem dugg heure mais mujj gi da ngay jàng fi niveau boo mën di yóbbu boo demee dañ lay defal imtixaan qabul seet sa niveau yóbbu la nga demee foofu donc damay bañ a guddal mais damay wax ne ni mu amee biasa azhariya noonu la amoon biasa mauritania Mauritanie itam dafa am ay relations yu rafet ak réew mi relations yu rafet ak kër gi relations yu rafet ak Cheikh Nazir Cheikh Nazir dox ba nga xam ne amoon na ay 29 enseignants yoo xam ne amoon na ay oustaz amoon na ay instituteurs ak ay professeurs ñu ñëw fii di jàngale. bi ñu ñëwee bi ñu demee ba 80 ahdaas yooyu xewoon problème yi xewoon diggante Sénégal ak Mauritanie en 89 ci lañ dellu Mauritanie. ba 92 bi relation yi kii ñu dellu siwaat biasa yooyu ba léegi ñu ngi fi même biasa azariya yooyu daan fi ñëw ren mën na ma wax ne fukk ak benn wala fukk ak ñaar ñu ngi ci maaxar bi di jàngale ca liggéeyu Cheikh Nazir ba mooy continuer ba léegi waaw loolu mënees na ko wax Cheikh Omar euh, su ma bañee guddal parce que waxtaan ci Cheikh Nazir man dama bëgg a jël benn domaine rek am na keneen koo xam ne tey su doon waxtaan ci Cheikh Nazir dana dugg ci diggante tasawuf Cheikh Nazir kaana mu tasawifan am na ñoo xam ne ma doon jox tariqa yar leen ci am na koo xam ne mën na ci wax am na koo xam ne bu doon waxtaan ci Cheikh Nazir tey dana waxtaan ci domaine même économie amoon na macharia tanmawiya yu mu doon bëgg a taxawal am na koo xam ne mën na ci wax am na koo xam ne mën na ci mosquée yi mu tabax mais man mën na maa wax ci école yi nga xam ne taxawal na ko gis ngeen li ñuy wax école de proximité mooy la xale dafay nekk fële ca Kossimbité fële ca Dabane fële jàng ba am entrée mu war fa jóge ko ñëw kaw la amul benn kër bu mu dem te foofa amul école bu mu jàngee bëri nañ école bëri na jàng yu mu yàq loolu pour régler ko Cheikh Nazir école yu bëri dafa tabax ay ay dafa créer ay école soo demee tey Mérina Sàngaako ba sanawiya am na fa soo demee fii Fatick amoon na boo demee Yëmbal amoon na boo demee Yasaw am na foo demoon sëñ Mouhamad Nazir créé na fa ay école yoo xam ne xale yëpp mënuñoo ñëw fii comme ñëpp mënuñoo ñëw fii nag da ngay tabax foofu ay école yóbbu fa ay jàngalekat jàngalekat yooyu daawul leen tànnee n'importe comment gis nga dañ daan ñëw école di bëgg a tijji diw ñëw ne damaa bëgg a jàngale diw ne damaa bëgg a jàngale diw damaa bëgg a jàngale kenn ku nekk fàttaliku ne fii Kanté mi daan filut ak ñoom Salma ak ñeneen li leen yóbbu ci école yooyu lan la dañuy ñëw jógee ko ndakaar ñi jógee fii mu def benn bés mu defe leen musaabaqa datt leen seet ñi nga xam ne ñoo ci raw mu tànn ay école yóbbu leen fi ñeneen ñi mu bàyyi leen ñu dellu ne leen yéen ayoowu leen ma jox leen école école yooyu noonu créé na ay jàngalekat yu bare loolu bokk na ci liggéey yi nga xam ne Cheikh Nazir daf ko doon ma bëgg a dem ci fin bi rek wax yan activité moo amoon ci école bi am na ku ko tudd léegi Cheikh Ibrahim Male gis nga ni njàng xale ñun dañuy wax ci suñu jargon pédagogie bi ne xale booy boo koy jàngal dafa am ñetti boor yoo xam ne da koy utilise xel mi da nga ciy wax dafa am matière yu liggéey ci xelu xale bi xol bi da nga ciy wax nga ay ngëm am na matière yu ciy liggéey jëmm ji am na matière yu ciy liggéey su fekkee da nga ñëw di koy jàngal loo xam ne ci xel demal ngay jàngale naxoog sax dana jàngale xam làng bi mais xel lay gën a defar jàngal mathématique jàngal géométrie xel lay defar demal nag ngay jàngale hadis ngay jàngale alquran xool lay defar demal ngay jàngale riyaada badaniya ay loxo lay defar ku ko wedd rek demal ci xale yi nga xam ne dañ yëkkati ay weñ ak yooyu nga xool seen yaram yi ni muy mel lu ko defar lu tan moo changé seen yaram li ñu yëkkati bon école dafay liggéey ci ñetti boor yëpp te Cheikh Nazir daf ko xamoon biir école bu amoon ay activité ay yuy am ay nachata amoon nañ école amoon nañ lu ñuy wax équipe football boo xam ne daan bokk ci championnat yi fii di koy gagné waxuma di ci bokk rek di koy gagné école football dafa amoon équipe football dafa amoon ci école bi football am na ñoo xam ne yaakaar na caaxaan la waxuma la xaalis bi muy rapporté mais day defar yaram al aqlu salim fil jismi salim dégg nga beneen bi daf doon organiser ay activité culturelle nachatat saqafiya ay muhadaraat def ay musabaqaat baynal fusul diggante classe yi jël rabia awal rabia alif rabia b ñu def musabaqa indi ay question ñii tontu kii tontu ñu tànn nga jore sana saalisa ak saalisa classe tel classe tel loolu daf doon indi musaabaqa boobu day doon indi munaafasa sharifa kenn ku nekk dafay gën a góorgóorlu sa njàng loolu Cheikh Nazir daf ko doon def beneen bi ci nachaat yooyu aussi même def ay xitaaba nan lañuy bindee lii nag loolu bokkoon na ci ba même continuer fekk si ca umsiya saqaafiya ba gis ngeen maaxaat ni ñu ci participer ba léegi loolu yépp liggéey la boo xam ne depuis Cheikh Nazir lañ ko commencé woon bi Cheikh Mouhamadul Mahi al Khalifa bi mu ñëwee continuer ko ba léegi nii Cheikh Mouhamed mun hamina mu ngi continuer liggéey boobu amoon nañu aussi ay activités yoo xam ne activité culturelle mais art la woon fànn la woon ñu am fariq tamsiliya fii yàgg nañ fi jouer Islam Omar jouer fi yeneen jouer fi yeneen loolu mën na maa wax ne tamsiliya boobu dama ci joxe benn exemple njëriñ li gis nga dafay jàngal nit xitaaba dafay nettali nit ñi ay histoire yoo xam ne nañ ko ci même albaqara bi nga xam ne ci alquran joué nañ ko fii islaamu omar abdullah ibnu omar ak ay yeneen ak yeneen mais fiqa bi yemuloon ci école bi daf daan dem ci àll bi man mën naa wax léegi benn ay cadre yoo xam ci njàngale bi lañ nekk ak feneen ay boroomi xam-xam yoo xam firqa yooyu noonu dem seen dëkk def fa ay théâtre yi arab moo tax ñoom ñu jógee fa dem ci seen i kilifa ne man damay jàngi école Nazir damay jàngi fii ba am na ci ñoo xam ne ñu ay professeur lañ ñi université lañ nekk ñi feneen lañ nekk te looloo ko indi ngeen xam ne bon Cheikh Nazir li mu fi liggéey bari na tuddoon naa école yi nga xam ne ñoo topp école bi duma ci ñëwaat mais bu may tënk rek damay wax ne jiite école yombul mbir mu jafe réussir ko jafewut jafe na lool parce que dafay laaj compétence yu bari dafay laaj ay aptitude yu bari ay man-man yu bari dafay laaj ngay planifier planifier mooy lan am na loo xam ne mu ngi ci sa xel nga bëgg ko def mais sa xel rek la nekk tey bu ñu waxoon ne suñ mbaar mii ni mel nii avant muy mel nii ci bopp la nekkoon am na koo xam ne ci xelam rek la nekk nekkul ci xelu kenn moom rek la xelam nekk mu ne nii laa bëgg mu mel dafay jël këyit rëdd ko ci bi mu ko rëddee ba pare ut benn entrepreneur jox ko ko entrepreneur bi kii defar weñ yi kii defar li ñu taxawal ko mu doon mbaar mi ñu nekk ci loolu mooy planification loolu Cheikh Mouhamad Nazir daf ko doon def tëdd ba guddi mu jóg bind dara bu xëyee ñëw ne xutta bi ñii lañ koy defee donc planification boobu daf ko doon def tëral njàngale mi indi benn manhaj programme bi lii ak lii lañ war a jàngale ci classe tel lii ak lii man fekkee naa Cheikh Mouhamad Nazir muy jàngale lu ñuy wax ay numuwul aqli an numuwul jismi an numuwul ijtimaai nga xam ne ilmu nafs la nga xam ne dañ koy dem ba université nga koy jàng fekk naa mu ciy former ay jàngalekat naa leen nii ngay def nii ngay def su ma bëggee tënk daal dama naan Cheikh Mouhamad Nazir yàlla mayoon na ko tawfiq ci mu jiite école bi yàlla mayoon na ko tawfiq ci mu tànn mën manhaj boo xam ne am na solo lool loolu moo tax ne ba way juróom demee Égypte jëli ko ba mu ñëwee bokk na ca lam waxoon ne ma kalla wala malla mundu rajaa أحب العلم وقاد الأقران إلى محبة العلم بام جوغي ايجيبت بالي تايلوت mu بغنا خام خام léegi tayalut yoqatut تام ني بغ خام خام لول بايام واخون نكو تي مام ايكول بوبو نك génne na waxoon naa leen ay ustaas ay inspecteur ay ingénieur ay docteur ay ñoo xam ne ay administratif lañ am na sax ay ustaas yoo xam ne actuellement université la ñuy jàngee bëgguma tudd ay tour bëgg naa wax tam ne waaw <laughs> bëgg naa wax tam ne amoon na ay nationalité yu baree baree bari yoo xam ne lu mat 16 nationalité te ba léegi am na ñu fi nekk am na ñoo xam ne Gambie lañ jóge woon am na nañ jógee Cameroun Mauritanie amoon na Guinée amoon na Mali Niger Nigeria Guinée Bissau Togo Ghana Côte d'Ivoire Sierra Leone Bénin Burkina Faso Mozambique même américains yi am na ñu fi doon jàng loolu ñu ngi doon jàngee ci jamono Cheikh Mouhamad Nazir bon daal damay bëgg a wax ne Cheikh ñu ngi lay gërëm. bi nga ñu mayee possibilité ñu waxtaan ci Cheikh mohammed Nazir nit koo xam ne góorgóorlu na lool ci lugal arabiya fi mu yegg ci Sénégal actuellement nii kenn mënu koo tudd te doo ci tudd Cheikh mohammed Nazir ni nga xamee ne kenn mënu koo tudd te doo ci tudd Baye Niass loolu moom kenn mënu ko bon yàlla nañu yàlla yërëmal Cheikh Nazir xarafe ko aljanna dugal ko ca fa gën a kawe ca aljanna ya ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa xasuna ulaika rafiqan ma ne nag ci fin bi ma wax ne laa yaxlu lxadis an janibi tarbiya fi xayaat cheikh mohamad nazir duna tatarruq ila cheikh mohamad almunhamina ibrahim ñas الذي ساهم الذي تسلم زمام الامور في المعهد ليواصل المسيره التربويه بعد الشيخ محمد الماحي ابراهيم dama ne mënuñ wax ci Cheikh Nazir te duñ tudd sëñ Muna mais tëbu ma rek tudd ko dama wax ne sëñ Muna mi nga xam ne mu ngi jël zimaam gannaaw bu ko Cheikh Mahi joxe donc bon dañ ma njëkk a tudd kii mais kee moo jiitu Cheikh Mahamad Nazir la ñuy tudd tudd Cheikh Mahi doog ko tudd moom bu fekkoon ne Cheikh Mouhamad Nazir deful fi woon lu taxaw kenn du ko mën a jubbanti ñoom itam li nga xam ne moom la fi Cheikh Mouhamad Nazir bàyyi woon suñ ci jaarale woon leneen lu may continuité ko du mel neneen pour temps nag yokkute am na ci njàng mi ci tabax bi ak ci lépp bon daal dañuy tënk rek di gërëm di sant di gërëm Cheikh di wax ne liggéey bii muy def moom tam liggéey bu am solo la dafa mel ni lim tuddee li Cheikh Nazir dafa mel ni continuité boobu lay wane liggéey bi Cheikh Nazir doon def mooy lii mooy li Omar def donc Omar li mu def mën nañ wax ne dafay continuer liggéeyu Cheikh El Hadj Ousmane dafay continuer liggéeyu Cheikh Mouhamad Nazir dafay continuer liggéeyu Cheikh Ibrahim dafay continuer liggéeyu Cheikh El Hadj Abdullah mën nañ dem ba Cheikh Mouhamad ba ca Rida Sani parce que loolu yëpp usra ariqal fil ilmi la xam-xam lañ leen am ak liggéey ci diine bon ku tabax école taxawal juma yaa ngi dekkoon ca sa liggéeyu maam wa man shabaha abahu fa ma zalam wasalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf Cheikh muaz Ahmed Biteye inspecteur muaz Biteye ci waxtaan wu am solo bi nga xam ne def nga ko ci Cheikh Mouhamadul Nazir ibnu Cheikh Ibrahim Niass ak liggéey yi nga xam ne liggéeyal na ko xam-xam liggéey yi nga xam ne liggéeyal na ko luxal arabiya te lépp rek euh, li ko ci gën a dimbale mooy bëgg li muy def ak am ndigal ci li muy def ndax euh, képp koo xam ne dund nga ak moom danga gis cofeel gi nga xam ne am na ko ci xam-xam ak cofeel gi nga xam ne am na ko ci luxal arabiya moo ko mayoon najaax bi mu am yëpp ci mën a idaara école bi ci jamono boo xam ne jamono bu jafe la li ma ciy seede rek mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass indi na fi ay oustaz ñuy jàngale mawadd al sharia ak mawadd al luxal arabiya gannaaw Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahim Niass mu gis ne jamono laaj na ñu indi ay professeurs yoo xam ne dañuy jàngale ay mathématiques ak ay sciences professeurs yooyu ñi ci njëkk mooy Nabil maa ngi fàttaliku at bi may def ba BFM euh, fekk def nañ ëwale adaadi saani adaadi ba war a def saalisi adaadi BFM euh, may wàccee benn problème ci mathématique am élève français yi yu toogoon suma pegg xool li may wàccee ne may li nga wàccee nii baaxut ay élève français yoo xam ne ñu ngi toogoon den ak man nekkoon terminal ñu ne ma li ngay wàccee nii baaxut ma ne leen ankay baax na ñu ne ma baaxut ma ne leen baax na ma jox leen ñu wàccee mu wuuteeg li ma wàccee man ma ne leen yéen yéen a jum waaye du man mën naa gëñ na yéen yéen a jum madina yëpp élève français bu ñu ko jox ñoo bokk benn résultat élève arabe bu ñu ko jox ñoo bokk benn résultat ma ne loolu loolu mënta am te ñaari résultat yi bokkut ma ne loolu mënta nekk ñu weerante ba mujj gi ma ànd ak ñoom ci Nabil suñ professeur eng euh, mathématique bi biñ demee fekk ko fii saam ma expliquer ko ko ne ñii de dama doon werantee ñoom ci benn masala riyaadiya waaye li ma jaaxal bu fekkoon ne kenn rek moo juum du ma du ma du ma ñëw ci yow waaye li ma jaaxal mooy élève français yëpp ñëw bokk résultat ci ci dëkk bi élève arabe yëpp bokk résultat nabil ne ma jox ma problème bi sans yoon yi ngeen jaar ba wàcceeku ma jox ko ko mu wàccee li ñu wàccee ñun élèves arabes yi élèves yi ma àndoon ak ci élèves français yi na ko non du mu ne leen waaw man ñuy ndee ba Égypte ba fii ngir mathématique ngeen naan ma da ngaa jur ñu ne ko ñun suñoo nekkul ci loolu li ngay def lu loolu ñu weerante weerante ba sonn mënu leen a mu jóge mu jël feuille bi jox jox leen ko ne leen wàccee leen ak fi ngeen jaar yëpp jox ma ko ñu wàccee ko ak fi ñu jaar yëpp mu ne leen kan mooy seen professeur lycée ñu wax ko professeur bu bind ko ci kaw fooy bi bi mu paree dem ci mu mudir Cheikh Nazir radiallahu anhu wax ko ko Cheikh Nazir ànd ak moom lycée bi ñu demee ñu oo prof mat bi prof mat bi leen jàngal mat bi ñu oo prof mat bi expliquer ko affaire bi prof mat bi ne leen léegi jox leen ma masala bi ma xool ñu jox ko ko fekk moom Nabil jël na gaañi yoon wi ñu jaar yëpp ak résultat bi ñu indi yëpp jël na ko mi ngi ko garder ci feuille bi prof bi ne ko jox ma feuille bi mu jox ko feuille bi prof mat bi wàccee li ñu wàccee ñun élève arabe mu ne ko waaye sa élèves yi ñoom wàccewuñ lii sa élèves yi beneen yoon lañ jaar te beneen résultat lay am ne ko jox ko feuille bi ne ko lii la sa élèves yi wàccee prof mat bi xool vérifier xool xool gis fi ñu juum mu souligner ko ne ko fii lañ juum moo tax ñu am résultat bi Nabil ne ko man yaakaar naa ne euh, ci jàngale mi la parce que ñoom ñëpp mënuñoo ànd juum ci li ma yaakaar xaj na yow bi ngi leen di jàngal mun nga am juum te li foofu la jugee mais ñoom ñëpp mënuñoo ànd juum ci masala bi mu ne ko mën na nekk après mu bind signé wane ne man prof mat bi bind turam ak yëpp

incha allah dinañ fi def léegi ay discours ci français ak ci arabe euh, école yu bëri teew nañ fi euh, ñëw taaral jotaay bi bokk na ci école Mame Astou Diankha bu Seyda Roqeet Ibrahim Niass école Mame Alhaji Abdoulaye Niass institut islamique Alhaji Abdoulaye Niass Cheikh Nazir a ngi nii ak euh, Cheikh Ousmane doomi Cheikh Mouhamed Nazir Ibrahim Niass institut islamique africain américain bu imam Hassan Cissé euh, mudir mudir dirasa mi ngi nii ak euh, Seyd Ousmane Diop mi nga xam ne moo yore daara ji moom it mi ngi nii toog daarul xikma wal kitaab daarul kitaab wal xikma ñoom it euh, teew nañu fi ak ay école yu bëri yoo xam ne teew nañ fi kilifa yu bëri tamit teew nañ fi gis nañ léegi cheikh imam Cheikh Tidiane Aliou Cissé léegi la fi jógee ak Cheikh Diallo Cheikh Ibrahim ibnu Cheikh Ousmane ibnu cheikh aboubacar al awal mi ngi nii toog cheikh tija cheikh ibrahim ibnu al xalifa cheikh ahmed tidiane mi ngi nii toog naka noonu tamit njabooti cheikh alhaaji Ousseynou Niass ñi ngi fi teew njabooti sëñ ousmane ibnu cheikh aboubacar al awal ñi ngi fi toog ñoom it ci njiital cheikh ibrahim waaye tamit imam Taïba Niangeen mi ngi fi teew moom it ak kilifa yu bëree bëri ak pare yi ñoom ñëpp ñuy ñëw toog ngir taaral li nga xam ne moo di jotaay bi kon ñu oo ki nga xam ne moo di Mouhamed Anne mu def discours ci arab su paree ki nga xam ne moo di Ndeye Thior kon muhammad an mu jege si def discours ci arab bu paree danañ jox pare yi ñoom it ñu sànni seen kàddu incha allah Mouhamed Anne mu jege si. rahmaani rahim alhamdulillahi حمدا hamdan وذكر لله سكرا سكرا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنجيز المهمات والصلاة والسلام على خير البصر محمد الأفضل صلاة وتسليم سعادة المدير العام السيد عمر نس سعادة المدير التعليم السيد أستاذ بي قدرات الصاد والسيدات أعداء هيئة التدريز الأفادلة ضيوفنا وزوارنا العزاء في هذا المنبر العلمي وفي هذا السرق العظيم نقيكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم بين أبنائكم الطلبة وإخوانكم المعلمين الأفاضل نرحب بكم ترحيبا في واقة العلم سعينا للهمة العليا وتحقيق المرام بالود الذي نماه الإسلام بيننا وبقب الذي ألف قلوبنا المدرسة هي التي تحرج العلماء ورواد المستقبل قادة الحقيقيين للمستقبل فأهلا وسهلا بكم نشكركم جميعا على قدوركم بأقاس الإيمان الأكبر السيحتجان عن الإنسيس السيد إبراهيم نياس والسيد ماس بيتي على وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله جزاكم الله خيرا شيخ محمد آن هنيئا آه نيلا لك مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نيس نيلا لك الآن دفع تجيوي مني mel nii muy fexe ñemeloo ndongo daara yi ñuy taxaw di def ay discours ba ay borom xam-xam yu bëri yoo xam ne ci yu mel nii rek ci lañ génnee ba daj àddina bi yëpp man lañ cee tudd al oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nga xam ne amul benn école bu mu jàngee bu may fii ci école Mawlana Cheikhul Islam Alxaaj Ibrahima Niass te ci yu mel nii la daan taxaw ci yu mel nii la daan taxaw di ñaax ñi nga xam ne ñoo di ndongo daara yi ñu def discours ci li nga xam ne moo di luga al arabia wane na mbégteem ci li nga xam ne moo di bés bi ak école bi nga xam ne Cheikh Omar ibnu Cheikh Ousmane ibnu Cheikh Aboubacar al awal moo ko tabax ngir rek jàngale xam-xam jàngale luga al arabia wane na école bi mustawa bi nga xam ne moo fi nekk ak jàng yi nga xam ne vraiment ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal ñi ngi góorgóorlu waxtu nekk ci jéem leen a jox li nga xam ne moo di xam-xam nuyu ne mbooleem kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew rawatina cheikh ibrahim ibnu cheikh ousmane ibnu cheikh aboubacar al awal rawatina cheikh ibrahim ibnu cheikh ahmed tidiane ak it ki nga xam ne moo di suñ muhaadir bi cheikh mouaz bi tey kon ñu àgg ci ki nga xam ne moo di ndey coor jaañ moom it mu def discours am ci Euh, luxa alfaransiya soxna Ndeye Thior Diar mu jege si Ndeye Thior Diagne mu jege si def discours am ci luxa alfaransiya mi ngi saalisa al ibtidaa yi Ndeye Thior Diagne ki njëkk njëkkoon a wax kon Mouhamad Anne nee na saalisa la nekk ci école bi Bonjour les, bonjour les À ce jour solennel de l'organisation annuelle de cette fête de fin d'année, nous vous recevons parmi nous. Soyez les bienvenus à cette prestigieuse institution que porte le grand, le vénéré c'est Ousmane Fatignas. Chers EFT nous disons Marhabon avec fierté de, et de bonne cordialité. Votre presse ici parmi nous représente un honneur et un grand prestige. Merci encore une fois de votre ici. Bien, Romain, soyez bonne et heureuse fin d'année. macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf euh, soxna Ndey Coor macha allah jërëjëf kon euh, xam naa rek euh, loolu di wane rek ne école bi école franco arabe la école la boo xam ne bu am mustawa la ndax njàng mi baax gi nga xam ne moom la baax moom nga tax nga gis xale yi ak seen niveau bi ak seen age bi ñuy làkk luxal arabiya bu set ak luxal français boo xam ne bu set la kon xam naa ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoo di parrain yi. aleykum wa ah, ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi salaahu salaam ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi salaahu salaam di leen sant di gërëm ah Omar imaam ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla guddal sa fan yàlla yàlla yokk la yàlla yàlla aar la. yal yàlla sàmm la foo jëm yal na fi yu yàlla jëm ñu ngi lay sant jant goo xam ne kii fi mu fi mu dalee waaye fi mu yem kenn xamu ko ñun xamuñu ko ndax soo jëlee tey suñu jëmm ji yu ñàkk solo ji suñu suñu jëm ju woyof ji nga dugal ñu ci bés bu tedd bii di bésub alxuraan tey nga boole ñu ci ñun amuñu mënuñu laa sant sant bu bu goo xam ne gi tax asakaal na jëf ji nga ñu jëfal ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla foo jëm yàlla na fi yiw yàlla jëm li nga nas lépp yàlla na àgg te nga fekke ko ñu ngi lay sant di la gërëm di sant mbooloo mi képp ku fi teew ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla daal ya képp ku fi teew tey yàlla nañ fi dajawaat déwén te lépp aaju bu fi waay indi yàlla na ko yàlla faj ci darajo yonent bi sujud bu jot ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm li nga teraanga ji ñuy defal ñun ëpp na lool foor na lool ci ñun waaw dañoo xam sax am émotion pour mën a wax li bëgg a wax yëpp waaye daal alhamdulilahi rabbil la ñoo ngi lay sant ñoo ngi lay gërëm wasalaam. jërëjëf kon euh, ñu woo ki xam ne moo di monsieur Mamadou Djim Ndiaye di quatrième adjoint euh, mu wax ci tur ki nga xam ne moo di président Youssouf Benjeline Bunjelu di ki nga xam ne moo di président conseil départemental fii ci Kaolack ñu woo Mamadou Djim Ndiaye mu wax ci turam. asalaamualeykum asalaamualeykum asalaamualeykum mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu ñun waa conseil départemental bu la ci turu suñu kilifa Ahmed Youssouf Ahmed Benjeloun euh, sëriñ bi Cheikh Omar Ousmane Fati Niass ñu ngi lay nuyu di nuyu kilifa yi fi teew yépp nuyoo bii nag maa ngi koy wax ci turu chef de délégation bi ñu àndal muy docteur Mati Cissé mii toog mooy jiite délégation bi man ndaw laa rek bu nekk ci wetam mu jox ma kàdduwaay moo waroon wax ci turu Bengeloun Ahmed Bengeloun nee na mu ngi leen di fedd li kóllëre mu ngi leen di wan ne mbir mi ñëw yéen ko bokk ñoo ko bokk parce que jullit lañ comme yéen ñoo ko bokk ndaxte ñoo bokk département bi ñoo ko bokk ndaxte sëriñ bi ci suñu biir la bokk muy Cheikh Omar ñu ngi leen di nuyu aussi ci turu ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci délégation bi muy euh, Akim Ndour di secrétaire euh, élu di nuyu faramboj di ak faramboj mi nga xam ne également ci conseil yi la bokk waaw ñu ne ñu gàttal waaw jërëjëf baax na dañuy ko gàttal incha allah suñuy kàddu kàddu ziyaare rek la. ak kàdduy ndokkile waaw sëñ Omar suñu présence fii man ci suma jëmmi bopp bu ma sañoon du demee nii ndaxte yàgg naa la wax ne la dinaa la ziyaare si waaye tey la ko yàlla dogal tey la yàlla dogal ñu ñëw fekk la si la fekkee si conférence bi ñu di leen indil nag nuyoo conseil yëpp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 muy nuyoo lislaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa may jiital ci nuyoo bi ki waral jotaay bii muy Cheikh Omar gannaaw ma ko nuyoo di ci teg magam di Cheikh Ibrahim ak mboolem seen rakk yi fi teew yëpp di nuyu délégué de quartier yi nekk fii ci gox bi di nuyu itam aimati aima yi rawatina imaamu jumaa ji waaye ma am lu ma métti trop parce que oustaz Mouaz mi biñ ma waxee ne ma mooy def muxaadara bi amoon na cawarte ak xiirte lool lu dooleeku ci li ma ci Cheikh Omar boole pour fekkee ko déglu ko ndax déglu borom xam-xam njariñ la surtout ku mel moom surtout fiñ ci fiñ koy waxloo ak ci kiñ koy waxloo euh, waaye yàlla baax na olof mu ne bu yoon jeexut waxu si lu jeex euh, jotaay bi ñu ngi sant yàlla ndax yàlla ci mbaaxam xewe woon nañu ñu fekkee ko daaw daaw teewe woon nañ ko teeweaat ko ren xëy na am nañu ko fekke woon daaw te fekke wuñu ko ren fekke ñu ngi ci yemaane yàlla yàlla leen yàlla yërëm te eh, Alaaji Omar jërëjëf ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla ndax eh, lii ngay def nii di yëngatu ci lu baax di yëngatu ci xam-xam di fàttali ko ñu baax ñi ñi taxawee xam-xam loolu lu rëy la waaye nag Eh, yow ci loolu lañ la war a gis ku la gis ci loolu du wax lu tax xanaa ci leneen lañ leen waroon a gis kay ne lu tax ndax ki nga xam ne moo leen meññ walla ñu ko meññ muy seen wayjur Alaaji Usmaan doon suñ mag ju baax yal na yàlla yokk ngërmaaneem ci moom yokk leeram yokk barkeem gannaawam ñun ñu xam ko mu nekkoon suñu mag nekk suñ sëriñ doon borom xam-xam lool bokkoon ci umanaawul fayda bàyyi óolu woon ko lool ci yu bari ci biir ak ci biti bu bàyyi wax naa ne bu bàyyi firi aan alquran gannaaw bàyyi maas ci li ma fàttaliku su bàyyi firi aan alquran bu bare bu yëkkatee jotaay bi dafay wax ne dem leen ci alaaji Ousmane mu toppal leen mu def ko muy élimaan ci jumaa ji def ko muy élimaan ci biir këram waaye loolu yëpp laa xarwa ndax baayam nekkoon élimaani zaawiya Alaaji Abdoulaye Niass bii ci lew na te ñépp xam ni ko maam Alaaji dafay woon élimaan ci jumaa jooja li taxoon mu def ko muy élimaan ci jumaa jooja nga déggee ci taxawaayam moom Baye El Hadj Babacar ci diine ak sajaa adabi bi nga xam ne amoon na ko waaye da ciy dégg itam dégg gum dégg diine dégg gum dégg fiq ndax mag ñi dañuy nettali ñu ne dañoon na timis moom El Hadj am tuuti retard ci ci kër gi mu ne ne taxawal lañu julli ñu ne ko ab bàyyi ngi ñëw nanga mu ne déedéet waxtoom ak bàyyi waxtu moom ak bàyyi wax na dëgg waxtu moom moom laaj maanaam njàmbaarte gi mu am xawoon Maam Alaaji ni mu meloon ci dëgër ak ci jafe te dégg ngeen li Baye wax sax même bi muy lettre bi mu yónnee Alaaji Abdoulaye bi mu ko bindee ba muy wax ci baayam dégg nga li mu wax ne moom nee na baayam lenn rek ko naqare woon ci ci moom mooy mooy mooy baay mu ne mbind mu ñaaw ne wa ma saahu minni illa suu xati loolu rek ko naqare ci moom mu ne écriture boo xam ne rafetul ah kay rafet na sax rafet na rafet na ndax ñi ëpp ci ci doomam yi moom bàyyi moo leen dàq bindi fuuf moo leen dàq bindi fuuf ma ne ku ku mel noonu dégg nga te te bàyyi def cee teg ne mu ne sama bàyyi comme def ci yow dégg nga témoignage bu mel noonu mu ne loolu mooy raaya fii taskiya raaya la ci taskiya maanaam kenn mënta tagg nit lu passé loolu woon wax ak ñoom fekk man bi may ànd ak mudir ci tournée boobu ma doon wax ci àll bi dañu dox ba Kër Tamba ma gis Kër Tamba dëkk bi neex ma daal parce que am na ndox nangam nangam nangam ma ne mudir ma ne ko man fii laay jëm bind ma mudir bind ma Kër Tamba mu indil bàyyi liste bi bàyyi liir ko ba ak ci suma tur baare ko fekk wax na ko ne ko. indil ma xale yi gannaaw gee mu indi ñu gannaaw gee ñu toog mu dénk ñu ba pare ne ñu na ngeen xam ne dégg nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy almuallimul awwal ngeen xam ne ci mission am ngeen ne na ngeen jikkoo jéem a jikkoo jikkoo yonent bi la ngeen ci xam ndongo yi ngeen di jàngal bu gis ci yéen dara lu ñu xeeb te fu leen waxtu julli fekk ci ci waxtu njàng bàyyi leen li ngeen def ngeen ngeen ngeen jiite leen ñu julli ne ma ana arab yi ma ne ko ma ne ko ñes mu ne ma gis naa fii ñu la bindoon maa far sa tur bind la tey ba ñu seen yow li ma la sant mooy boo boo jàngalee ba wàcc na nga dem sa baay alaaji karaw nga jàngi ci moom lii na nga dem sa baay alaaji nga jàngi ci moom boo demee tey ba Ousmane Fati Kouta moo amee caabi sama kër ga ne la ubbil néeg yëpp nga xool am na fa néeg boo xam ne lalak nangam nangam yëpp a nga fa mën ngaa dëkk ci néeg boobu danaa la booleeg abaqati ku na mu mu amee sa wàllu dund sa añ ak sa reer ak sa ndékki ne ma eh, waaw loolu la ma wax waaw mu ngoog loolu la ma wax mu ne moo tax moo tax taarix baax yoo xam ni mu demee eh, <laughs> mu ne xam nga ñoom ñoo dëkk woon ci boori bàpp gi noonu ci pénc bi mu ne ma Ousmane Fatick ne la ubbil yeneen néeg yi ci des nga xool néeg bu fi ndongo yi xaj rek ngeen def ko muy classe boobu néegu ñax bi moo fa gën a rafet te dafa rafetoon nag am ay décor ndax Senghor dafa bàyyi doon recevoir bu rafet la woon Senghor bi di seet si bàyyi tey ba moo taxoon mu liggéey néeg boobu moom la fa recevoir booba alwaax yi mu fa defoon ak yooyu yëpp a nga fa ma ne ma ne góor gi ma ne ko dindi lii yëpp nañ dindi yi ak fleur yi ñu fa ko dindi am ay ay maal yu ko yu ko bàyyi defoon ñu delloo ko ci yooyu ñu commencé di fa di fa jàngale ba benn bi sax euh, bàyyi laaj garaaw dafa fonkoon am na am na charx kii alfiya bu ñuy wax euh, bu ñuy wax tasreex daf ko fonkoon lu mu wax ne borom tasreex ni nangam borom tasreex ni nangam bi ñu bàyyi di jàngal maag imaam Cheikh mii ak sëñ Maxtaar yàlla ko yàlla yërëm benn bés ma ne bàyyi ma ne ko ndax mën nañoo jënd charx kii tasreex dégg nga di jox mu ne ma déedéet wallaay mu déedéet déglu leen li ma leen di wax ngeen takk ko ngeen soxla tasreex lii la wax <laughs> li lay wax keroog e su ko defee ma ne eh, loolu mooy lenn la lu tuuti ci taarixi école bii ba ko bàyyi di ubbi di ñaax ndaw yi dégg ngeen li wax ne bépp xam-xam bu ngeen mën a bu ngeen mën a sàkku da ngeen ko da ko sàkku da ko sàkku ba nettali ci sax benn benn benn benn histoire xaw ma eh, enregistrement yi indi nañ ko mu waaye daf ne man bi may ndaw dama am sama benn xarit boo xam ne dafa doon jàng ci école yi français yi da ko dugaloon l'école française mu jàng mu ne ma léegi gannaaw seen baay nangu leen dugal leen école man lu ma jàng ci école bi ma wàccee dinaa la ko jàngal mu ne ko waaw ah baay mu ne ñu dem ci <laughs> benn fan ñaari fan ñetti fan mu ne benn bis baayam fekk ko mu ngi beru amee amee kaye bi mu ne ko Ibrahima yi lan la mu ne ko man sama benn xarit sama xarit bii mu nangam nangam mu ne daf may jàngal mu ne mu ne yaa ne ko kaaw téef ah da ngaa bëgg na ci sama kër gii di fi jàng lu ma xamul mu ne na yem na yem tey ah mu ne mu bàyyi mu ne ba jëmmi jamono mu ne benn bés bi maam Alaaji jaxas commencé jaxasoo ak nit réew tubaab bi ñu ko bind ay lettres français yooyu mu oog mu ñëw mu ne ko Ibra loolu nga doon jàng ma tëral la kon maa bëgg nga continuer ko ndax fi mu ne wa wu bu ma waxtu bu ma amee lettre ab nasaraan balaa maa xam lu ci ne doomi jàmbur xam ko bàyyi wax de waaw mu ne mu ne ko man su ne loolu mënatuma ko bàyyi ndax ndax su ma su ma leçon yu bëri yi ma ko boole sama leçon yi mu ne maamalaaji ne ko cey lii de mooy lu yàlla namut yow bi nga ko bëggee man nanguwuma ko man bi ma ko bëggee yow itam talatoo ko <laughs> moo bàyyi teg ci nag ne moo tax yéen ndaw yi maa ngi leen di wax ne leen bépp xam-xam bu ngeen mën a xam ko sàkku mu teg ci ne maa ngi nii ñu ngi may invité Allemagne dégg nga te dara du sama ngànt pour dem lu dut fii la ko waxee lu dut eh, li ma li ma xam awma laa nga bu ma leen ko mën a joxee te bu ma bu fekkoon ne déggoo naa ak ñoom ci wax bu ma demee dana nekk njariñal islaam lool ne ne gàcce na ngeen jàng na ngeen jàng xisaab na ngeen jàng lépp ne gàcce la ci ndaw ngay compter di compter say baaraam sax loolu yëpp wax na ko fii keroog ntaay bu gudd la woon e te yooyu yëpp bi mu paree daf koo teg ci loxo Naziru teg ci ne école bii nag tuddee ma ko suma bàyyi ngir lim ma jur ndax man ci laa génnee ci laa yaay Mouhamad Khalifa génnee ci laa yaay Mouhamad Zeynabu génnee ci laa yaay Babacar Dégg génnee ci la waalidu Ahmad Thiam sa maam mu ne xataa Abdou Ndiame waalidu Ahmadu Thiam cheikhul islam hada la ko waxee waaw loolu la wax cheikhul islam ba Ahmadu Thiam foofu keroog ne Abdou Ndiame dégg cheikhul islam ahmadou thiam ne loolu moo tax ma tuddee ko waaye tuddee ma ko ngir ne dafay sama baay moo tax ma tuddee ko waaw e eh, bëgguma monopoliser micro bi di wax ci wax ju sama wax ju bëri yu ñàkk njëriñ ji may wax waaye daal eh, kontaan naa bu baax kontaan naa bu baax e mboolem ñi participer ci fii ba mel nii ak yéen ñi nga xam ne Cheikh Omar dafa enu taraanga ñëw bi ñëwee ngeen yaatal ko bokk ak moom lii muy góor muy jigen dégg na jigen ñi wax ñep ay kàddu yu rafet yi ñuy wax góor ñi fi wax ñep dégg na kàddu yu rafet yi ñuy wax lolé bëgg lu baax la xam-xam moy fare ko ba faaw lolé bay wax tabsiratu anam fi an al ilma huwa al imam sayyidina ali yu ne mal faxru illa li ahli al ilmi innahum ala al huda liman istahda adillahu ñoy lumière yi nga xamne ñoy gide nit ñi leen leralal seen kanam dégg nga Mauritanien ba sax la wax moom itam ci lu mel nonu dégg nga إذا الفتى مات عن عرف وعن أدب وكان ذا ولد فليحفظ الكتب إن ضاعت الكتب فالمعروف يتبعه فليس ذا ولدا وليس ذاك أبا ها نعم. يعني بشبير صاحب يعني والمرء إن حاز ما قد كان حائزا ومن المعالي أبوه حقق النسب من ينيم حققتم النسب نيجي لين جرم نيجي لين سانت ما نيجي يقولون يبتاعون يبنك دنيا نيالا جرائبي يالا نكتبه عدين تبارك يرون تبين yalla yalla nangu jëf yëpp yalla yalla xool bëtam ngërëm mané ak bëtam ndimbal bëtam euh e, di ñaan yalla nak te maa ngi koy sàkku ci mbolam mi ñu diko ñaan suñu réew mi yalla ñu ko yalla xaaral ñëpp ñepp fim ne ñu ngi ko xool bët té li ñuy tuddee pétrole mm-hmm. dégg ak ak ak ak or ak dégg maadin mahadin yi na ci suuf ak yëpp muy gaz muy nangam muy nangam fu am dégg ñu bari dañ dañ ba jëm fa.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 amatuñ signature amatuñ kàddu tey ñii fi ne tey ci loolu lañ jëm dañ bàyyi seen xel ci loolu Seydina Omar ne bi mu nekkee amirul muminin ragal yàlla gam ragaloon yàlla nee na gélém sax mu fakastaloo ci saxaraaw Arab moom la ko yàllay laaj te xalifa yonentu la yonentu mu fekkee mu bokk ci shodaaw badrin dégg nga yonentu ko dégg lu bari waaye terewut bi ngi doon bàyyi xel bés boobu ñoom ñii fi nekk tey itam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 mooy wax ak ñun ne ida kaana xiyaarukum umaraakum wa agniyaaukum sumaxaakum wa amrukum shuura baynakum fa dahru l ardi xayrun lakum min batniha mu wax safaan ba ne ida kaana shiraarukum umaraakum wa buxalaakum agniyaaukum wa umurukum ila nisaaikum fa batnul ardi xayrun lakum min dahriha loolu mooy lan mu ne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 alal yi nekk ci loxoy ñu nay ñi mbir yi nekk ci loxoy jigéen ñi ñu amee atte yi di fasaka fecc daan di def leen ni bu leen def mu ne bu boobaa ngeen ne ci biir biir suuf di dund moo gën ci yéen ngeen ne ci kaw suuf ku ne nag ni ko ak ni ko déggee ku ne nag ak ni ko déggee maa ngi gërëm ñëpp maa ngi sant ñëpp asalaamaaleykum alhamdulillah wax ji daanaka farankulaayu na gannaaw bu suñ mag Cheikh Ibrahima sànnee kàddu yu mujj yi mu sànni eh, li tax ñu mujjee kàddu gi dañoo oote am ñu bari Cheikh Ibrahima xamu leen eh, ñu gën ñu uutu ko ci xam googu ñu xam leen am ñoo xam ne dañoo dëkk ak ñun ci koñ bi nekk ay tànneef lépp lu ñuy def ci lu baax ñoo ngi koy tayit moo xam ñu bokk pas-pas bokk sëriñ wala ñu ñàkk a bokk sëriñ te sëriñ yëpp ci kenn ki mooy seen sëriñ muy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ki ma ci jiital muy jéen fan jéen euh, jéen mbay mii nga xam ne ci ñooñu la bokk taaliba Cheikh Ahmed Bamba piir mu jaral ko lu nekk su màggalam jotee mu berne togg ay berne tund yu yëpp mu jox leen ay teraanga nekkoon kilifa njiit ci banque yi Kaolack yi nekk boroom xam-xam nekk ab jullit nit ku moderne koo xam ne macha allah li tax ñu tuddee ko ko du dara lu duut oyof ak dal ak nekk taalibe ak xam ne ay mbokk lañ ndax innama almuminuuna ixwa waxul innama tijaaniyuuna ixwa wa innama almuridiyuuna ixwa innama almuminuuna ixwa moom xam na ne jullit julliteem mbokkam bokk nit ku baax la jumaa ji am na feneen fu mu doon jullee waaye bi jumaa ji euh, commencé ñu commencé di ci julli mu xam na néeg bi néegab yàlla du néegab tijaan yaa ngi dégg julli yu juróom ajjuma heure bu ko fi fekkee fii lay julli amul benn farfarlu doy gu mu doy ma nag looloo tax ma tànn ko ne ñaan gi ñuy ñaanal suñuy waajur danañ ko ci boole yaa ngi dégg ndax yelloo na ko ñaareel ba muy Pam Ndaw mi nga xam ne timin doom la ci Pa Ndaw nga xam ne wax naa ko léegi lii ñu sémb ni gannaaw yàlla ak yonent bi loxoom mi ngi ci Gàmbi la nekk yaayam sax bokk na ci ñiñ ci rendre hommage waaye loolu li muy tegte la rek mooy ne ñun ku ñu lebal lu baax ñu fay la ko mu yaayam Fat Diouf nga xam ne soxna su baax la ku ñamee joxe ñam ku bëggoon borom këram la ku oyofoon la ku daloon la ay doomam macha allah ay tànneef lañ yaa ngi dégg ñu boole ko ayda ma nekk ba Dubai ayda ne ma boole ci pam dama mën a ko déer yaayam la ñu mën a ma déere force ñu dugal ci pam yaa dégg mu mu mu kontaan ci lool ànd ak ay xaritam ñu ngi nii toog loolu tim ñu ko ci sant di Ilias di suñ mbokk dafa gàddaay ngir yàlla ak yonent bi ñëw fekk si baay yàlla ñëw indi ko fi mu jaxasoog kër Alaaji Ablaay Ñas di seeyeg suñu bàjjan keroog bi mu tuxoo ci koñ bii nii ci la def jumaa ji mu nekk jumaam di julleeg ñun ajjuma di julleeg ñun julli juróom yaa ngi dégg suñ mbir neex ko lool yaa ngi dégg ñu ne timin yastaxiqu yaa ngi dégg ñu boole ko ci bés bi newu fi ba ma koy jàpp newu fi ma nga Nigéria yaa ngi dégg waaye doomam yi ñëw nañ fii macha allah ak seen i teraanga alaaji morloo mii nga xam ne mujj na fa wax léegi suma xarit la ñu bokk nekk Dubai muy ñëw Dubai yaa ngi dégg nekk nit ku baax nekk daaye bu mag yaa ngi dégg kadalika heure bu jot mi ngi may tasjeex moom tamit suñ xarit la suñ soppe la ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam di Cheikh Ibrahima tey bëri na moo ma wax ne ma bés bi béseb journée culturelle la nañ ko nañ seet ñi nga xam ne am nañ ay athar ay ay basamaat ci jàng ak jàngale ku mel ni yaa ngi dégg eh, Cheikh Nazir yaa ngi dégg bi ma ko waxee mu fàttali ma ko ma xam Cheikh Nazir ak Alaaji Ousmane li leen boole yaa ngi dégg dëkkandoo nekk mag ak rakk mu fonk suñu baay ba tuddee ko doom doom ji moo toogoon fii yaa ngi ma xam ne loolu tamit lu rafet la ma def ko te tey Cheikh Mouaz mii ca Dubai laa ko ooyee yónnee ko message mu kontaan ci lool yaa ngi dégg def ci baax su boo xam ne tey ñu bëri xam nañ ne école bi école la ci école yu Cheikh Mouhamad Nazir moo tax ñi gërëm oustaz Moaz bu baax di ko sant di ko ñaanal yàlla ah su ma bàyyi mbay bi tey sama xarit loon man xam naa ne suma xariti bàyyi la mbay caam mbay député yaa ngi dégg suma bàyyi la suma xariti bàyyi la suma mbokkam bàyyi la waaw suma mbokkam bàyyi la dama daan toog bu guddi mu ñëw suma kër di ma seetsi man tamit dama ko daan seet si ay dégg doom ji nga xam ne moo dëkk ak ñun muy Mahmoud kër gii nga xam ne su may duggee ci jumaa ji di jiite terrain boobu keroog bi ko maamut soxlaa jënd ko ma ne ko damaa soxla kër gi ndax léegi mu ne ma awma benn problème soo ko soxlaa ma jox la ko dama ko wax laaj rek mu jox ma ko ma yëkkatiwaat beneen kër jox ko ko te nit li bëgg mën na koo jaral lu nekk te koñewuma ci bi ma ko waxee rek mu ne ma amul benn problème utal ma beneen kër rek ma yëkkati kër gi jox mu nekk xale bu baax yëkkati teraanga di ko def ci jumaa ji eh, mu uutu ci ay magam keroog bi ma nekkee Dubai ma ne ko kaamil bii ñu nar a jàng bëgg naa cee boole suñ bàyyi mbay yaa ngi dégg mu kontaan ci lool contacté mbokkam yi ak magam yi loolu ba tey tamit ñu ngi ci sant yàlla bu baax soxna Ndey Jang doomam suñ xarit loon woon yaayam moo booleeg moom heure bu amee soxla mu indi ko ci man di ko di sàkku ñaan yàlla dénkoon ko ko jël ko mu nekk nit ku mag ci jumaa ji jigéen ju baax jigéen joo xam ne taaliba Cheikh Ahmed Bamba waaye sëriñ si yëpp la bëgg ñëpp la yemale waxtu wu nekk mu ngi seet luy doxal luy boole nit ñi kadalika ma ne gannaaw resi xolom li ko yàlla joxoon moom la jël danañ ko boole ci ñaan gi loolu moom moo tax a ah, sëriñ Daara Seck moom ak suñ baay ñoo bokk benn métier bari na ku tari ci daara ji heure bu sama baay moo lay déglu ku mokkal alquran sama baay moo la doon déglu te sëñ daara daf daan ñëw nekk suma xarit heure bu jot su ma soxlaa ay xale mu jàppale ma ci Babacar mii xam na ci dara te timin gannaaw journée alquran la journée culturelle la te sëñ daara def na ci alquran lu nekk def na ci xam-xam lu nekk ñu ne nañ ko ci fàttaliku ndax suñ ko tuddee rek danañ xam ne tudd nañ ñiti alquran tudd nañ xaadimul quran tudd nañ nit koo xam ne tarit nañu bëri jàngal nañu bëree bëri bëri bëri euh, léegi loolu mooy li nga xam ne mooy li am moo tax maa ngi gërëm mboolem ñu ko tuddee mboolem ñu ci rendre hommage bés bi ma tuddee ko suma yaay soxna maam Assou Niang bintu alxaaji ma du Niang mi nga xam ne ku bàyyi fonkoon la keroog bi nga xamee ne baay mi ngi dem London nit ñëpp dañoo toog mooy leen awal leen ma suma day am assu suma yaay ñëw mu yëkkati teraanga yëkkati butéeli lañ ko yëkkati lu bari jox ko ndax dafa bëggoon baayam alaaji ma Abdou Niang mi ngi mel ni Cheikh Ibra Fall ni mel kër Cheikh Ahmad Bamba mooy ki njëkk a xam yàlla mooy jëwri jëwriñu premier Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu yaa ngi dégg bàyyi ba koy bàyyi di jox ndigal joxul kenn ndigal yaa ngi dégg nekk nit ko xam ne bàyyi ooyee na ko ci anam yu nekk moo gën ci taalibe yi moo gën ci gore moo gën ci nangam lu nekk kooku moo jur suñu waajuru jigéen suñu waajuru jigéen nekkoon bëkki néegi Alaaji Usmaan yaa ngi dégg nekkoon yaayi taalibe yaa ngi dégg ah, kon ñu dajee fi di ko ñaanal ñaanal ko mooy ñaanal nañ mboolem soxnaay Alaaji Usmaan yi ñaanal nañ mbooleem yaa ngi dégg njabootu Alaaji yi ñaanal nañ Alaaji Usmaan ñaanal nañ Alaaji Babacar ñaanal nañ Alaaji Maabdu Ñang ñaanal nañ Amadou Boucar ndax ñoom suñ taxutoon ñun duñu am loolu tax ñu tànn bés bii ne bés la boo xam ne ki ko ci fàttaliku ndax lépp luñ am sama baay rahmatullahi aley daf ma doon wax ne ma Omar liggéey ndey barke baay liggéey ndey barke baay te dëgg yàlla ren jii bi ma demee Dubai tukki léeg-léeg ma gis yoo xam ne damay xam ne lii yëpp ci liggéey ndey la waaye dëkk bu jafe dëkk bu jafe boo xam ne wax dëgg yàlla da nga xam ne lii feeñ léeg léegi da xam ne yow doo ci dara kon soxna su mel ni ñaanal ko mooy ñaanal bépp soxna su baax jàng nañ fi ñetti téeméeri kaamil yoo xam ne képp kuñ ko tuddee wala kuñ ko pare kuñ ko kuñ ci rendu hommage ci nga bokk ak képp koo xam ne yaa ngi teew suñuy ñaan yàlla dana la ci jox ñu ngi gërëm suñ bàyyi maax yi avant muy dem dem naa fa mu ne ma ah su ma fe su ma sañoon fekkee ko ma ne ko fekkee nga ko ndax bañ ko commencé bees yàlla ji ngelaw di pënd da nga xuus lépp ñëw bi mu ñëwee yaa ngi dégg alhamdulilah tey jii nii biñ demee ba boori 6 heures yàlla ji dafa bëggoon a taw li wër Medina yëpp taw na fa kii na fa bàyyi oma ne ma ah waaye nu ñuy def oma ma ne ko yàlla ñëwut yàq suma liggéey yaay bi lii ñëwu koo yàq bàyyi ne nañ kalkal incha allah ma ko am nañ yaakaar ne lii ñu togg danañ ko yekk yaa ngi dégg dañ ko yokk imaam léegi wax na ko xam na soxna si bu baax a baax keroog bi ñu ko tegee ci këram jumaa ji sëñ maa yi dafa wax ne moom ak soxna maman si ñii ñoo bokk génération wax ci moom ay manaqib yu bare bare bare bari bëri yoo xam ne alhamdulilah sant yàlla kon lii rek la euh, euh, lu tax ñu sos jotaay bii euh, mooy comme la ma waxoon mbitéen keroog ba jumaa ji pare ma ne mbitéen benn yoon lañ koy ubbi dutuñ ko ubbiwaat te dëkk bi dafa war a dund te jamono jooja na mbitéen meloon ak ni mel nii bokkut mané kon na fi ñaanal suma baay ndax daf doon ñaanal baay alhamdullilah yaakaar na ñaan gogu amna fu mu yóbbu mbiteem fi timin barab bu melni nga def fi juma def fi école bëgg fee rëdd hôpital bëgg fee def yenen laaj na ñaan ndax ñaan mo man lu nekk ñaan man na lu nekk def na lu nekk loolu tax ñu ne nañ fi dajé di ñaan di ñaan jàng alquran joxe ñam laaj na yonent bi ne ko ayu amalil afdal faqali it'amu taamu ifsha'u salam كون جوتاي بي اطعام طعام لا افساء السلام على من عرفت ومن لم تعرف نمون شي دارا دو زياره دو لن لودول لولو الحمد لله بين اوتي نين نيب نيو نين ياي ساور نين اند كونتاكت ياي ديغي بين لو اوب جورومي وقت ني نغي توك دي دي دي نيب دي دغلو امام شيخ تيجان علي سيسي ديمبو بركي ديمبو رو ديمبو جير بي لا فدم منو ما ان شاء الله دمي دم دكار waye luma meuna def dana fa jaar nga gis macha allah ni mu defee ñëw ci jotaay bi loolu dollal lu mag a mag a mag la ndax moo tegoon xeer bi ànd ak suñ mag jii nii ñoom ñaar ñëpp ñu ñëw fi di gërëm Cheikh Ibrahima beneen yoon ndax ñun moom rek lañu am suñ mag la suñ ñëwoon fekk mu yaafus dañuy yaafus waaye alhamdulilah kenn du ko gis yërëm ko kenn du ko gis yàpp ko te mag ju baax su baaxee rek su rakk yi ñëwee danañ baax alhamdulilah ñi ngi gërëm. indi na fi seg boo xam ne téeméeri junne moo ci nekk loolu teraanga la teraanga ju rëy la ndax jumaa ji jumaam la jumaa ji du jumaay Omar jumaam la ndax alaaji Usmaan lii atharun min moom mooy ñaareelu ku fi def téeméeri junne sëriñ bu keroog bi mu fi ñëwee dafa yëkkati yaakaar naa téeméeri junne kaas la yëkkati jox ma ma yëkkati téeméeri junne yi jox ko Aliou Ba am na sax suñ benn waay boo xam dafa ñëw ne ma sama wàll ma ne ko xaaye ba ba mu ma ko joxee daa ko jox àlli ba su ma yoon newu ci waxuma ne ma Omar am sama wàll ci jumaa ji xaalis bi àll yu yore na ko lu ëpp juróom benn weer bi may dem giri yuy ngeen gis ci jumaa ji giri yuyu ci lañ ko defarul ak ñaari bunt yi def facture ma leen def leen ko ci turi sëriñ bi bi ma Cheikh Ibrahima joxaatee sec bi timit ma joxaat ko àll yu ba kon ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant yal na la yàlla yokk yal na la yàlla dimbale yal na la yàlla taxawu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 أولئك على هدى من ربي وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الصادق الأمين وهو أصدق القائلين ومصدقون ونحن على ذلك من الشاهدين وبه مؤمنون ومصدقون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ورضي الله عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وتلحة وزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة بن جراح وحمزة والعباس وجعفر وعقيل والحسن والحسين وفاطمة وخديجة وعائشة وسائر أمهات المؤمنين ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا يا مولانا من المحبين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اللهم نور به قلوبنا وقبورنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا ووفقنا لما فيه رضاك عنا اللهم اجعل القرآن العظيم أمامنا وقائدنا إلى الجنة ولا تجعل خلفنا سائقنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم شافعا مشفعا فينا ولا تجعل ماحلا مصدقا فينا اللهم ارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا المكان إلا غفرته ولا هما إلا فرجتا ولا دينا إلا قضيتا ولا مريضا إلا شفيتا ولا عيبا إلا سترتا ولا فسادا إلا أصلحتا ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا يسرتا برحمتك يا أرحم الراحمين